très ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour, nous sommes le lundi 6 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week et nous souhaitons à tous un très bon début euh, de semaine. C'est parti pour euh, plus de deux heures de temps de direct pour votre émission matinale. C'est clair, c'est le premier numéro euh, de la semaine. On enchaîne tout de suite avec la une de journaux paru ce lundi.

Avec la complicité de la région, on démarre la ligne des journaux parus ce lundi. La route tue Tchalaloum, mhm. mais aussi donc la mer est en train encore une fois de tuer les Sénégalais. Le journal Libération en a fait focus ce matin, surtout encore une fois donc par rapport euh, donc, euh, qui se passe dans la mer, l'Atlantique qui, qui continue encore une fois donc d'engloutir les fils filles sénégalais, toujours donc par rapport à l'immigration irrégulière, avec donc le journal Libération, bien sûr, qui en a parlé ce matin. Euh, tout justement donc euh, de cette euh, émigration irrégulière dans les côtes de la Mauritanie, bien sûr donc avec justement des Sénégalais qui sont annoncés donc justement donc fatigués, dirait-on, qui sont en tout cas morts par rapport donc à cette immigration irrégulière. Drame, nouveau drame au large de Nouadhibou. Nous a parlé donc le journal La Libération ce matin, comme vous le voyez donc à l'affiche sur ce petit écran. Voici l'accident de la circulation qui s'est déroulé en tout cas, qui s'est en tout cas, s'est tenu à Sangalkam avec six personnes qui ont perdu la vie. Bilamitouré, encore une fois, comme je l'ai dit, en un mot, la route tue, mais aussi la mer est en train, encore une fois, donc d'engloutir les fils et filles sénégalais. Oui. Et c'est pas seulement la, la route que tue, c'est la mer aussi que tue. Euh, ce sont des situations dans les structures de santé. Euh, ce sont des maladies qui tuent. Euh, il y a eu un peu trop de morts au Sénégal euh, un mort, c'est un mort de trop. Mais plusieurs, on a vu que à l'origine du, du, drame de, euh, vers euh, Sangalkam, c'est euh, le chauffeur du véhicule particulier qui a perdu le contrôle de son, de son véhicule. Cela mm. pose encore le problème de l'aspect technique des, des voitures. Euh, il faut nécessairement qu'on puisse revoir tout ceci. Il y a eu mm. autant de mesures qui ont été annoncées, mm. notamment concernant les visites techniques concernant les véhicules, concernant euh, les euh, transports en commun, comme transport euh, personnel, pour éviter justement ces, ce genre d'accident. Mais comme on le dit, face à la mort aussi, il y a ce qu'on appelle l'inéluctable. C'était peut-être le moment ou le jour où devaient partir ces, ces différentes personnes. Nous d'abord rendrons Euh, grâce à Dieu et surtout présentons nos condoléances à, aux familles des victimes et surtout dans ces conditions qui étaient très dramatiques puisque euh, c'est des, des femmes, enfants qui se rendaient à une cérémonie mais qui malheureusement ne pourront même pas arriver à cette cérémonie puisque euh, ayant euh, été fauchés par la grande faucheuse, la mort. Mais il faudrait que les autorités prennent leurs responsabilités concernant notamment Euh, le contrôle des véhicules, un contrôle strict et systématique. Qu'on ne fasse pas du tafiengle comme on dit souvent, puisque euh, on peut se retrouver avec un... Combien de véhicules circulent aujourd'hui dans la circulation ou sont dans la circulation euh, sans être un technicien euh, On se rend compte que ces véhicules ne devaient même pas euh, être mis sur la route. Et pourtant, ce sont des véhicules qui circulent. quelquefois euh, penchant d'un côté ou d'un autre, brinque-ballant, et personne ne s'en émeut. Et ce sont des véhicules qui sont à l'origine euh, ou qui peuvent susciter des accidents de la circulation. On ne dit pas que euh, c'est le chauffeur ou ce sont les chauffeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une défection au niveau du, véhicule. Il faudrait déjà une enquête pour savoir euh, qu'est-ce qui est à l'origine et éviter autant que faire se peut ce genre de situation. Et nous parlons cette fois-ci éducation Bilal Touré avec euh, le journal Enquête qui en fait focus euh, ce matin de parler euh, de la constitution de la nouvelle équipe donc du Sénat ou bien sûr donc de la Sénat la commission électorale nationale autonome bien sûr avec donc l'école sénégalaise le journal Enquête qui parle ce matin d'une école entre la vie et la mort puisque le syndicat national en concerne donc justement l'enseignement du sénégalais le CUSEMS e ainsi journée morte, dit-on, mais aussi en ce même moment, Birahim Touré, euh, l'autorité, c'est-à-dire euh, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de faire la pression, en tout cas en ce qui concerne les, euh, le corps syndical euh, de, de l'enseignement, bien sûr. Mais même pas seulement la pression, une menace. Est-ce que c'est le moment de menacer Est-ce que c'est le moment d'avoir... Euh, D'accord, c'est le ministre en charge, c'est le ministre de tutelle, c'est le ministre qui doit rappeler peut-être les syndicats. Mais le saems qui estime qu'il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés mais pas respectés et qui estime qu'il faut aller vers cette grève ou un euh, euh, mardi noir comme ils l'ont appelé où il y a une grève totale euh, dans l'enseignement moyen secondaire un peu partout au Sénégal il faut d'abord discuter avec ces gens, il faut tenter de discuter avec ces gens. Mais ce n'est pas la menace qui va faire reculer certains dans certaines positions. Il faut nécessairement qu'à un moment donné, qu'on puisse privilégier le dialogue. Certes, le ministre peut être dans son droit en disant non, vous n'avez pas le droit d'aller comme ça en grève et que l'État prendra toutes ses responsabilités euh, face à ces situations. D'accord, mais il y a également à côté ce dialogue qui doit être permanent entre les acteurs euh, que sont euh, les syndicats d'enseignants ou autres syndicats et la tutelle, que ce soit de, euh, de, de l'éducation nationale ou un autre ministère par rapport à ces syndicats qui Euh, qui existent au Sénégal et qui ont quand même le droit d'aller en grève s'ils se sentent lésés ou euh, euh, oubliés par rapport à des revendications. Mais euh, le ton de la menace, à mon avis, ce n'est pas ça qui va faire changer les choses ou évoluer positivement les choses. En tout cas, euh, par rapport donc à cette situation, euh, que le SAEMS ainsi que donc le QSEM se maintiennent toujours à euh, leur position, bien sûr, donc d'aller en grève, c'est-à-dire donc journée morte demain, mardi. Et nous parlons avec justement... Oui. Oui, euh, en fait, on a, on a comme l'impression, euh, apparemment, je ne sais pas si c'est le micro qui, qui, passe ou pas, euh, mais en tout cas, on m'a allumé un autre micro que je vais mettre euh, de manière peut-être euh, très. Euh, bon, par rapport à l'urgence. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le, le, la tutelle a le droit, comme je disais tout à l'heure, de vouloir que tout se passe bien au niveau de, de de son ministère et de son secteur. Mm-hmm. Mais euh, les syndicats d'enseignants aussi sont dans leurs droits. Mmh. Il y a une grève où, euh, et, cela doit être euh, régi par ce qu'on appelle une certaine formalité, puisqu'il faut, par exemple, envoyer des, ou prévenir de, toute grève, prévenir avec des, des, notes ou des, correspondances à l'endroit mmh. du pour mmh. dire côté, il y a ce qu'on appelle les préavis. Mhm. Et mm préavis-là, c'est l'Organisation internationale du travail qui, permet que tout syndicat ou tout corps qui se sent lésé puisse aller La grève mhm. mhm. est un, un droit. E, il ne faudrait pas en abuser pour certains mais il ne faudrait pas également que de l'autre côté, on abuse aussi de sa position ou qu'on un peu trop de sa position euh, euh, pour menacer. trouvons une solution, euh, puisque euh, mm. l'année scolaire déjà, beaucoup ont euh, des craintes, mm. parce que on va vers une année électorale, ou en mm-hmm. que Satan annonce, et mm-hmm. qui pourrait avoir nous parlons donc cette fois-ci donc avec Biram, comme euh, je l'ai tout à l'heure avec la Sénat, bien sûr, ce débat qui est depuis le début du week quand le président Macky a fait donc a un décret de nomination d'une nouvelle équipe, bien sûr, donc vous le voyez avec le journal, euh, donc euh, avec la complicité de la régie, bien sûr. Euh, beaucoup de journaux en ont ce matin sur quotidien. La polémique enfle nous a parlé le journal ce matin. Voici donc la une du journal en mettant Regardez avec Diaga mais aussi donc justement Ismaël l'ancien ministre de la Justice sénégalaise qui a parlé. Mais à côté donc Diaga Silla, expert électoral, a répliqué par rapport donc à la sortie de Ismaïla Madior Fall au-delà donc du journal euh, Sud Quotidien toujours donc dans les parutions du euh, jour ce matin donc de lundi 6 novembre bien 6 euh, novembre bien sûr je le disais tout à l'heure beaucoup de journaux en ont parlé encore une fois donc par rapport à cette nouvelle nomination Birahim Touré l'essentiel parle ce matin de la Sénat Doudou Ndoye Doudou Ndir et cette compagnie donc justement euh, qui sont en tout cas, je ne sais pas euh, comment. Euh, et bien mhm. sûr, le journal qui pose une question, une question très importante en parlant d'aujourd'hui d'une sanction ou retour à la normale. Oui, euh, les deux. Moi, je pense d'abord à un retour à la normale, mhm. mais c'est le timing qui pose problème. Le retour à la normale, c'est quoi mhm. euh, La société civile, l'opposition, beaucoup d'hommes politiques ou d'acteurs politiques, d'observateurs. Mm -hmm ont depuis quelques années déjà mm. euh, dit que la Sénat, telle que composée avec euh, Doudou Ndir à sa tête, mm. n'avait plus le droit de continuer à connaître de la chose électorale puisque étant dans l'illégalité. Tout le monde l'a reconnu. En tout cas, au niveau de la société civile, on l'avait reconnu. Mm -hmm. Il y a eu même, euh, je pense, euh, après ou avant les élections législatives ou, ou euh, territoriales, euh, une demande forte de la société civile au sein du COSC, de la de de de, de l'opposition pour changer la Sénat, changer la composition mhm. de la Commission électorale nationale autonome. On est d'accord sur ce plan qu'il s'agit d'un retour à la légalité. Mais même dans le retour dans, à la légalité, il y a ce que la société civile, ce que certains observateurs, euh, hommes politiques et euh, euh peut-être euh, experts euh, en, en, code électoral, entre mm -hmm. autres, ou, ou, qui se disent experts, relèvent qu'il y a une anomalie dans euh, une anomalie plutôt, excusez, mmh. dans euh, ces changements qui ont été opérés euh, par le président de la République qui a rendu son décret et aussi son décret, je pense, le vendredi. Bien sûr. Et l'anomalie que relèvent ces observateurs, c'est que selon euh, la loi électorale, la Sénat, certes, doit changer euh, de dirigeants, de membres, mais s'il doit y avoir un changement, c'est seulement au tiers. C'est-à-dire on a 12 membres au niveau de la Sénat, on ne peut d'un coup changer que les quatre. Mmh. Mais d'un coup, changer les douze membres de la Sénat. Je reviendrai sur mmh. la nouvelle composition de la Sénat, puisqu'elle également pose problème. Mmh. Mais euh, je pense que quelqu'un comme Moudia Sissé mm-hmm. l'a révélé, un Valdio Diondia l'a révélé, des gens qui sont supposés mm-hmm. connaître euh, de la loi électorale, connaître le code électoral, entre autres, qui estiment mm-hmm. que selon en tout cas les textes qui concernent la Sénat mmh. et qui électoral sénégalais, on ne peut les membres de la Sénat, mais surtout tout à l'heure d'un timing. Mmh. Euh, D'abord, il euh, la Sénat qui a demandé à la Direction des élections de réintégrer Ousmane euh, la candidature la présidentielle de mmh. dans les listes électorales en tant qu'électeur et éligible. Il y a eu ce duel à mhm. moucheté entre la DGE et la Sénat euh, dirigée par mmh. Doudou Ensuite, on est à quoi On de la présidentielle de mhm. selon également la CDAO, qui nous régit mhm. et dont le Sénégal est membre de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Il y a un règlement dans la CEDEAO qui nous dit que on ne peut changer le, euh, euh les, euh, les, règles du jeu électoral à un certain moment, six mois avant une élection majeure, notamment celle présidentielle au Sénégal. Comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait cette polémique d'abord autour de la DGE, Direction générale des élections qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui organise la présidentielle, puisqu'on n'a pas un ministère euh, clé ou un ministère chargé directement de la pré de, des élections, comme on l'avait un ministre en charge des élections, mais un ministre de l'Intérieur mm -hmm. qui a aussi en charge, en charge. La, le, les élections au Sénégal. Mm -hmm. La DGE qui a posé problème, qui continue à poser problème par rapport à certains membres de la société civile, mais aussi de l'opposition. Mm -hmm. Et maintenant, la Sénat, qui est normalement l'organe qui est là pour superviser oui, les élections euh, et qui a même une certaine autonomie qui peut prendre des décisions euh, qui pourraient même aller à l'encontre de l'administration mmh. ou euh, de quelconque euh, parti politique ou homme politique en disant mmh. c'est ça ma décision en tant que Sénat mmh. et qui a comme prérogative même la possibilité de se substituer, on l'a rappelé vendredi dernier avec euh, Ndiaga Sylla, euh, de se substituer à, euh, à la DGE, par exemple, pour prendre euh, certaines mesures concernant la bonne tenue d'élection, que cette Sénat également fasse l'objet d'une autre polémique. Puisque, je le disais tout à l'heure, euh, là où l'autre polémique qui commence aussi à enfler, c'est sur la composition actuelle de cette nouvelle Sénat, ou en tout cas le décret de nomination euh, des nouveaux membres de la Sénat, avec, euh, euh on nous parle de deux membres qui seraient, d'abord l'un qui serait trop proche du président Macky Sall parce que ayant même eu à diriger un mouvement de soutien pour le président Macky Sall euh, euh leader de Benno Bokk Yakaar et également un autre euh, euh, je pense qu'il s'agit de de d'un ancien ambassadeur mm. Euh, dont le mandat n'est pas arrivé à terme mm. Euh, et qui ne pouvait pas et ne devait pas être changé mm. au niveau de la la Sénat. Bon, on a entendu le le les membres du régime notamment le pouvoir en place, dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, qu'il n'y a pas euh, vraiment de quoi mais, mais entretenir les... une polémique, puisque disons qu'il uh -huh. s'agissait d'abord d'une demande de l'opposition, de la société civile, qui a tout simplement été aujourd'hui euh, satisfaite, mais la forme comme le fond pose problème, et cela va avoir des uh-huh. conséquences, uh -huh. puisque les hommes politiques déjà qui n'avaient pas foi ou confiance au ministre de l'Intérieur actuel et même à l'ancien mini euh, euh, ministre de l'Intérieur euh, qui vont également ruer dans les brancards concernant euh, la direction générale des élections et qui vont également ne plus avoir confiance en cet organe qui est supposé être neutre dans l'organisation et la supervision des élections, à savoir la, la Sénat. Euh, c'est pas de bon augure par rapport à ce euh, qui pourrait être des tensions mhm. préélectorales. Mhm. des revendications électorales ou euh, euh post-électorales euh, avec euh, euh, tout ce beau monde, alors qu'on n'est même pas encore arrivé à la, au Conseil constitutionnel. Ça, et ça, c'est un autre point qui, qui sera soulevé sûrement. Vous avez parlé tout à l'heure, Birahim, de, de, duel entre la DG et la Sénat. Est-ce que ce n'est pas ce qui a conduit aujourd'hui à ce changement Oui, la Sénat était dans cas selon la société civile, selon euh, l'opposition euh, et certains observateurs dans l'illégalité, dans sa composition. Maintenant, d'accord, on doit changer les choses. Mm. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire bien avant Et si on le faisait bien avant, est-ce que ça aurait peut-être eu le même résultat aujourd'hui qu'il y ait mm. aussi autant de contestations autour de, de ces décrets Mais maintenant, prenons un autre cas de figure. Que pour éviter justement cette polémique, que le président dise, mais écoutez, bon, euh, je n'ai pas touché à la Sénat. Mm -hmm. Mais certains diront, mais écoutez, monsieur le président, ou vous autres autorités, ou vous autres du régime, mm -hmm. la Sénat est dans l'illégalité, puisque la composition de la Sénat n'est pas bonne. Mm -hmm. euh, on ne peut pas aller vers une élection majeure comme la présidentielle avec un organe illégal. Mhm. dans la composition. Mhm. Ça aurait également eu le même effet, c'est-à-dire une polémique qui aurait enflé euh, où euh, on dira non, euh, non, la Sénat, non, on n'en veut pas parce que les membres d'Oudoundir en premier, euh, ils sont euh, forclos depuis assez longtemps, mmh. ils ne doivent plus diriger ou ils ne doivent plus être membres de la Sénat et ce depuis déjà euh, quelques années. Quand on nous dit que ça fait deux ans et demi par exemple, que cette Sénat devait être changée, ou les membres de la Sénat. Quand on nous dit que certains sont membres de la Sénat depuis 2011, ou 2008 pour certains, ou 2009, c'est-à-dire 10 mm. ans, 14 ans, 11 ans, pour un organe qui est censé être, euh, qui est chargé plutôt de superviser les élections au, au mm. Sénégal, ou le processus carrément électoral, puisque c'est pas seulement, mm. on l'a vu avec... Euh, Euh, ce, cette histoire concernant la DGE, euh, c'est tout le processus électoral que la Sénat doit superviser. Euh, si aujourd'hui il y avait cet autre cas de figure, mais la polémique serait encore là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour couper la poire en deux Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur ce tiers-là dont on parle et dont euh, les experts électoraux mmh. parlent depuis euh, quelques jours pour dire qu'on ne peut pas changer la totalité des membres de la Sénat, mmh. mais juste le tiers mmh. euh, et Et surtout, il y a ce qu'on appelle une euh, euh possibilité de, de, de, changer tous les trois ans. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, euh, celui qui est membre de la Sénat l'est pour six ans, renouvelable une fois, mais au-delà de ces six ans ou de ces premières années, les mhm. six premières années, il y a possibilité de renouveler le tiers des membres de la Sénat, donc mmh. des 12, mhm. au bout de trois mois, ou tous les, euh, de trois ans plutôt, donc tous les trois ans. Euh, mais changer tout le monde, euh, tac comme ça, mm-hmm. euh, avec un décret, euh, le timing dont je parlais mm-hmm. tout à l'heure, et cela intervient juste mm-hmm. quelques jours après qu'on ait vu un nouveau changement, changement au niveau de la Sénat, puisque euh, on a entendu et vu une correspondance de la Sénat demandant la réintégration Ousmane Sonko. Euh, tout de suite, on a vu une Sénat, celle que certains attendaient. Euh, qui prenne ses responsabilités par rapport à une situation euh, de tension euh, électorale ou de tension politique. Mais c'est cette même Sénat et les mêmes membres de la Sénat mhm. qui ont été applaudis après cette note à la DGE. Ce sont les mêmes membres de cette mhm. Sénat-là que certains vouaient aux géomonies mhm. bien avant en disant que, écoutez, vous êtes là, mais vous n'avez plus la légitimité ni la légalité Euh, d'être à la tête de la Sénat, d'être membre de la Sénat, puisque on devait vous changer depuis déjà fort longtemps. Cette polémique va se poursuivre. Maintenant, on verra euh, sur quoi est-ce qu'elle va aboutir. Une polémique, mais aussi donc un combat de la société civile par, ce, par justement Euh, mais aussi euh, un combat de certains, comme vous l'avez dit toujours, euh, tout à l'heure, Birahim Touré, qui sont en tout cas experts élec Toro, mhm. justement, par rapport à, cette, à ce nouveau décret donc, du président Macky Sall. Mais aussi un combat, cette fois-ci, Birahim Touré, qui a déjà donné son verdict il s'agit du combat royal. En ce qui concerne le sport, bien sûr, le combat royal, Modulo, qui a fait face hier à Amabalde. Mais enfin, Modou Lo qui garde toujours sa couronne. Mhm. Euh, comme l'a dit le journal Sunu Lamb ce matin, le roi conserve sa couronne, Modou Lo corrige Ama Baldé. Et cela en 52 secondes. Est-ce qu'on s'attendait à cela, Birahim Touré et cause pour mhm. Bah écoutez, euh, c'est un combat, c'est du sport. Mm -hmm. euh, il y a un vainqueur, un vaincu. Mm -hmm. On encourage à Balde. Euh, on s'attendait peut-être pas à ça, puisqu'on n'est pas professionnel de, de, la lutte, euh, on est juste euh, des amateurs comme euh, tout le monde. Mhm. Et pourtant, Ama était très confiant. Hein, oui, Ama était confiant, aussi. mais Je pense attention, Modulo a montré... Qui le a trahi. Ah, Modou Lo a montré également, et je voudrais vraiment le, mm -hmm. le saluer, Bien sûr. Euh, comme on dit, le savoir d'un Et c'est la raison pour laquelle euh, je ne dirais pas que j'ai pris fait et cause pour, mm -hmm. pour Modou Lo, mais que j'ai eu un penchant pour Modou Lo, puisque euh, il s'est comporté euh, vis-à-vis -vis de ma personne, petite mm-hmm. personne, mm -hmm. d'une manière très, je dirais, courtoise et même amicale. Mm-hmm. et même pour le groupe puisque c'est quelqu'un qui suit beaucoup Leral. Ah. Euh, il me l'a signifié euh, quand mm. on s'est rencontrés dans, par un pur hasard. Euh, ils allaient, je pense, vers la Gambie. Moi, j'allais vers, mm -hmm. vers Toubacouta où on s'est, on s'est rencontrés. Et, et il s'est déplacé pour venir vers moi. Mm -hmm. Et depuis ce jour, je me suis dit, voilà quelqu'un qui est euh, d'abord... Euh, on, on, on, parle de lui en disant de saï saï ou de feu ceci ou cela. mais euh, qui a montré que c'est d'abord un, un, grand athlète. Et bon, euh, il a également répondu à ceux qui pensaient que tout est mystique. C'est vrai, c'est, c'est un peu la touche, euh, disons, ésotérique, mm-hmm. euh, belle de, de, de, la lutte euh, qui est le sport de chez nous. Euh, mm-hmm. Qu'il y ait ces amulettes c'est En tout cas, sur le côté mystique, autres. beaucoup disent que hier, il ne s'est pas préparé. Ben, attention, le mystique, c'est pas seulement dans l'arène. Dans l'arène. Euh, écoutez, euh, je viens sur un plateau, je peux être euh, bardé de de gris-gris ou amulette sans que mm -hmm. cela mhm. ne se voit. Bon, c'est mm -hmm. juste un exemple que je donne. Mm -hmm. mais on peut prendre ces brins, mhm. enfin, euh, ils peuvent prendre leur bain mystique chez eux, ils peuvent faire leur euh, leurs offrandes mystiques mhm. euh, bien avant. Euh, et c'était une manière aussi de montrer que mhm. tout n'est pas réellement mystique, mystique. et que euh, c'est surtout une réponse. Ce que j'ai constaté, mhm. ou en tout cas dans, euh, en tant qu'amateur, c'est que il a voulu aussi, avec son staff, répondre à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat. je ne sais quoi encore autres réseaux sociaux dire euh, euh, non tel est mystique mhm. euh, il mm -hmm. euh, y a telle offrande à faire s'il mm -hmm. ne mhm. fait pas ceci il va tomber ou c'est l'autre qui va remporter le combat mm -hmm. entre autres il y a beaucoup de euh, de de mamoun comme on dit des diseurs de bonne aventure mhm. des euh, des sorciers que l'on retrouve dans dans les TikTok et autres qui qui sont visibles chaque fois qu'il y a un un combat de ce de cette nature pour donner ils ne donnent même pas des pronostics, mais ils jurent même sur le Coran que c'est un tel qui va battre selon euh, les djinns et autres qu'il a eu à consulter la veille ou au moment même où il fait sa vidéo. Mais euh, on se souvient de Mohamed Daoud Tyson, mm -hmm. qui n'était pas aussi, euh, euh, disons, mystique, mystique. visiblement, mm -hmm. je vous dis, puisqu'il n'avait pas euh, tout cet arsenal mystique mhm. que l'on connaît dans Euh, dans, dans, dans, la lutte. Ben, certains diront que, bon, écoutez, c'est juste mm. pour faire peur à son adversaire. Mais ça, ce sont les professionnels de la lutte qui en parlent. Là, c'est vraiment l'amateur qui aime bien regarder le combat de lutte mm. le dimanche. Et on a assisté hier à un, à un bon combat, un beau combat également. Mm -hmm où c'est le meilleur qui a, qui a gagné, et puis c'est tout. Euh, bon, euh, malheureusement pour, euh, <laughs> malheureusement pour vous autres sur ce plateau, bah oui, j'ai eu raison sur vous autres, et euh, mon choix a été sur Modelo. Maintenant, j'attends mon autre, mon autre lutteur. Tafatine, qui a... Heureusement oui, que n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a hurlé de joie hier, cher Diogo, après la victoire euh, de, de Modulo. En disant que, bien sûr, en disant tout en étant malade, bien sûr, en d'ailleurs même, euh, on lui souhaite bon rétablissement. Ah, mais, oui. mais, mais, je disais tout à l'heure, Bidaïm Touré, qu'il a mm-hmm. tout en disant euh, l'inoni bogon d'Alunou. J'aime bien répéter cette prise de Cheikh Diop qu'il a repris hier en tout cas. la seule qui supportait à moi ici. <laughs> En Les tout cas, félicitations. Bidaïm, cher, Oui, mais de toute façon, félicitations à Modulo. C'est un ouais, combat. Non, félicitations à Modulo. je Modulo. le supporte parce que j'ai expliqué les raisons. Et <laughs> surtout, Bien sûr. Euh, je lui dis coucou, puisque mm -hmm. euh, apparemment aussi, et c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'RL. Mm -hmm. euh, et euh, pour cette raison, entre autres, je pense que euh, personne mm -hmm. n'a démérité. Aman n'a pas sûr, démérité. Sûr, et surtout, il faut qu'on sache, mhm. c'est un, un excellent athlète. Bien Aman, c'est un bon athlète. il est encore jeune. Mm -hmm. Il faut pas le l'oublier. Il est encore jeune. Il a battu euh, euh pas mal de mhm. d'athlètes euh, de la de la lutte sénégalaise euh, mhm. qui se sont frottés à lui, mhm. sauf qu'il s'est frotté à quelqu'un qui ce jour-là était dans son jour et qui a montré également que sur le plan de la lutte pure avec frappe en se battant, euh, il a montré qu'il qu peut encaisser des encaisser coups des et qu'il en donne. Mm -hmm. euh, il a lui-même lui eu à encaisser des coups. Euh, Modlo, il, il, a eu à mordre la poussière, mm -hmm. comme on dit, euh, à plusieurs reprises. Mais il a montré hier que, bah, écoutez, je suis encore le roi des arènes. Mm -hmm. Mes félicitations à Modlo et euh, sûrement on essaiera de l'avoir tout à l'heure euh, dans la seconde partie au téléphone. Il y avait aussi, Ibrahim, un important dispositif euh, sécuritaire. Par Ça, je voudrais vraiment remer, mm -hmm. euh, euh, rendre hommage. Et je pense que mm -hmm. les Sénégalais, les Dakarois l'ont constaté. Mm -hmm. aux forces de défense et de mm-hmm. sécurité. 1300 policiers et 300, euh, mm-hmm. mais 300 gendarmes. qui importe. C'est oui. la visibilité et mm-hmm. la présence. Je le disais il y a quelques jours qu'il faut qu'ils soient visibles. Ils étaient très visibles, mm. pas dans l'arène seulement, mais même tout au long du parcours Mhm. dans les quartiers environnants euh, jusqu'au Maristes, jusqu'à Grand Dakar, jusqu'à Grand Yoff, jusqu'au Parcelles Assainies, mhm. ils étaient présents. Il y avait une forte présence de la police, de la gendarmerie, et ils surveillaient et ils veillaient au grain. Mhm. J'ai vu une action que, euh, enfin, euh, une situation hier, euh, je pense juste après le, le combat, euh, un véhicule de la gendarmerie euh, posté euh, à un, un rond-point et qui interpellait les conducteurs de moto, mhm. Jakarta, Tchak-Tchak, euh, entre autres, euh, pour vérifier ce qu'ils avaient par devers eux. Et on a vu beaucoup de policiers, de gendarmes mhm. en civil qui assuraient la sécurité des populations. C'est un combat mais fini. Aujourd'hui, euh, on en parle depuis des années, des, des mois, avec une tension, une tension à son paroxysme. mais voilà maintenant c'est terminé le lendemain ce sont les journaux qui reviennent sur euh, les la chute ou mm-hmm. euh, les points forts du combat mais c'est dans notre passé c'est c'est derrière nous est-ce que pour un combat de lutte pour un match de football ou même pour de la politique on doit s'entretuer agresser des gens tuer des gens mm. juste pour un moment euh, très éphémère vous parlez de combien de secondes même pas une minute 52 secondes bien sûr mm. 52 secondes. Maintenant, c'est terminé. C'est derrière nous. C'est l'avenir aujourd'hui mm -hmm. euh, qui, qui, qui importe. C'est quoi C'est peut-être le prochain combat de mhm. dimanche prochain. Ce sont les autres combats. Mm -hmm. euh, chacun va se, refaire euh, parmi les protagonistes et euh, aller euh, en espérant la chance, mhm. mais en travaillant. Ce sont des athlètes. Ils n'ont pas un autre métier que lutter. C'est leur profession. Mm-hmm. Il faudrait que sur ce plan-là, euh, que l'on puisse aider le monde de la lutte, qu'on puisse sortir ce mot violence de la lutte sénégalaise. Puisque c'est cette violence, entre guillemets, qui est à l'origine aujourd'hui de la disparition de plusieurs sponsors. Mm -hmm. C'est cette violence qui est aujourd'hui à l'origine euh, de ce qu'on appelle le pay-per-view, puisque mm -hmm. beaucoup allaient à l'arène nationale ou dans les combats de lutte bien habillés euh, pour suivre un combat de lutte. Mais beaucoup ont décidé de ne plus y aller parce qu'il y avait trop de violence dans l'enceinte de, de, des arènes ou euh, de l'arène, par exemple, dans la, à l'arène nationale. Hier, avant le combat, quelqu'un m'a dit qu'on a enlevé les chaises euh, au niveau de la tribune euh, découverte ou je ne sais quoi, juste pour éviter que certains puissent utiliser ces chaises pour les lancer sur... Euh, Euh, d'autres ou même dans, dans l'enceinte ou dans euh, là où les luttes sont, euh, il faut qu'on extirpe cette violence de la lutte sénégalaise. Mm-hmm. Et du sport en général mm-hmm. d'ailleurs. Du sport de manière générale. Donc, Certains diront, mais attention, la lutte c'est un sport violent. C'est de la lutte. Mm-hmm. C'est notre sport. Il faudrait qu'on mette un peu plus l'accent sur ce sport, qu'on puisse aider ce sport et tous les autres sports, et que vous autres promoteurs, sponsors et autres, puissiez également venir vers Leral. Hier, on a eu un accord des promoteurs pour euh, diffuser le combat en direct à la radio. Mm -hmm. Mais ce, ce, qui, ce, qui, serait bien, sont qu'on puisse diffuser ces combats dans les différentes télés. Puisque mm -hmm. certains sont, sont loin de Dakar, sont peut-être dans d'autres régions, sont même à l'étranger mm -hmm. et qui voudraient regarder la lutte à travers leur euh, petit écran. C'est vrai mm-hmm. que c'est le monde du sport business aujourd'hui de plus en plus. Euh, mais qu'ils euh, euh, qu'ils prennent également leurs responsabilités mm. et surtout qu'ils pensent un peu à à ces télévisions et mm. autres qui voudraient aussi diffuser ces mm. genres de combat. Dernier mot, Thialaloum. En attendant, la couronne reste à, au et c'est Modou qui reste le roi des arènes. Félicitations à Modou Lo, la couronne. comme je dis. waaw kay merci à toi Lamine Senghor c'était la une des journaux Paris ce lundi on enchaîne tout de suite avec le journal. ñëpp maa gën ce lundi de la CEDEAO rendra sa décision sur les mesures provisoires euh, demandées par les avocats d'Ousmane Sonko, notamment la suspension de l'ex-parti PASTEF et de la radiation à Ousmane Sonko des listes électorales. Et parlait de ça tout du SAEMS-QSEMS. Le gouvernement du Sénégal menace de revenir sur ses accords avec les syndicats d'enseignants si ces derniers décident d'aller en grève Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation nationale affirme clairement que le gouvernement se réserve le droit de revenir dans l'immédiat sur ces engagements qui ont déjà coûté à 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais en cas de violation par la partie syndicale des termes de l'accord sans préalable. Et puis direction Louga, une activité de dialogue et de sensibilisation a été organisée avec le soutien des projets Voix et Leadership des femmes, VLF de l'ARS. L'objectif était d'informer les chefs de village, les regroupements de femmes, les élus locaux, entre autres, sur l'impact du code de la famille, les mariages précoces des filles et la non-déclaration des enfants à la naissance. Ils ont également constaté que certains enfants peuvent atteindre l'âge de 18 ans sans voir euh, d'état civil. Cependant, les maires euh, de cette commune de Darou euh, Mousti ont grandement contribué en mettant en place des registres d'état civil. Ces registres seront remis à chaque chef de village afin de faciliter la déclaration à des enfants dès leur naissance. Modou Ndoye, maire de la commune de Ndoyen, que nous écoutons, il s'exprime au micro de Babacar Diop. en collaboration avec euh, ARS, donc Association des relais pour la lutte contre donc, le, le, sida et donc VLS, donc voix, la voix et leadership donc, euh, des, femmes. Euh, C'est une activité donc, de dialogue, une activité de sensibilisation euh, qui, a, qui, avait pour cible donc, 100 personnes au niveau de la commune. Et les cibles étaient donc les chefs de village, les élus, les, les, les OCB, c'est-à-dire donc les, les, GPF, les AEC, donc les relais et les jeunes. Donc c'est une activité qui, qui, les sensibilise sur donc, le, code, le code la famille, hein, ah. ces articles donc 111 et 196. Euh, l'essentiel c'était porté sur ça, sur donc, la sensibilisation, conscientiser donc, les populations sur, donc, sur ces phénomènes comme le mariage précoce, mais la déclaration des enfants. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de jeunes filles donc, qui abandonnent parce qu'elles ont été euh, Donc la, la, le code donc les, les, les filles jusqu'à 18 ans, 18 ans pour, pour, pour puissent donc marier. Mais aussi euh, on demande aussi aux parents vraiment surtout les femmes donc de pouvoir donc déclarer les enfants dès la naissance parce qu'on voit que donc il y a beaucoup de de de d'enfants ils vont jusqu'à donc euh, à classe de euh, et ils n'ont pas d'acte de naissance. Il y a certains qui vont euh, jusqu'à jusqu avoir 18 ans, ils n'ont pas d'acte de naissance. Et vraiment, pour pouvoir avoir ça, il faut faire des jugements et vous voyez, ça ça demande beaucoup d'efforts. Mais le fait de déclarer son enfant dès la naissance, ça nous, c'est gratuit. Donc on les a sensibilisés vraiment pour qu'on pour qu puisse porter ce plaidoyer au, niveau de leur père, pour qu'on puisse vraiment déclarer très tôt, donc dès la naissance, les enfants. Assa Abouf Babacar Diop puis le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a informé hier dans un communiqué que 770 compatriotes parmi lesquels des enfants et des femmes candidats à l'immigration irrégulière ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien depuis quelques jours. d'entre eux sont hospitalisés et malheureusement 13 décès ont été enregistrés. Les corps ayant été inhumés sur euh, place a indiqué le porté par Ismaël Majorfal. Après avoir présenté ses condoléances, le ministère des Affaires étrangères a remercié les autorités mauritaniennes pour leur franche collaboration et a trait l'attention des candidats à l'immigration irrégulière sur les dangers liés à ce phénomène et invitant leurs parents et proches à davantage de sensibilisation dans ce sens. Et puis parlons le Parti africain pour la renaissance de l'émergence par Soukhali Sénégal a tenu pour se prononcer sur l'actualité de la rencontre avec ses militants. Son coordonnateur son choix sur Idrissa Seck pour la présidentielle de 2024. Le leader de par Soukhali israélo-palestinien et demande à l'État du Sénégal d'intervenir diplomatiquement. Les détails, c'est avec Djibril Roulet, L'idée depuis l'éclatement de la guerre entre Israël et Palestine a assez duré, alerte le leader du parti Paris Sokhali Sénégal. Une affaire qui frise un génocide dénonce Abdelkarim Fall. Ce dernier invite d'ailleurs les autorités sénégalaises à rappeler l'ambassadeur du Sénégal en Israël. Abdelkarim Fall est le président du parti Paris Sokhali Sénégal. Face à cette situation, notre parti condamne fermement le génocide opéré par l'État sioniste d'Israël et demande à l'État Sénégal de prendre ses responsabilités. N'oublions pas que notre pays préside aux destinées du comité, euh, du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables, inaliénables du peuple palestinien depuis 1975, donc 45 ans déjà. Nous pensons qu'à ce titre-là, Il ne sert plus à rien d'avoir des relations diplomatiques avec l'Israël. C'est pourquoi notre parti recommande de renvoyer l'ambassadeur d'Israël en Israël et de rappeler notre ambassadeur parce qu'on ne peut pas être quand même euh, en relation diplomatique avec un État criminel. À quatre mois de la présidentielle, Abdou Karim Fall et le comité exécutif du parti Paris Sokhali Sénégal ont décidé de soutenir Idrissa Seck. L'ensemble du conseil d'orientation stratégique, qui est l'équivalent de notre nous avons à l'unanimité choisi le président Idrissa Seck comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Nous estimons que le président Idrissa Seck peut faire renaître l'espoir, l'espoir d'un pays stable, l'espoir d'un pays apaisé, l'espoir d'un pays qui sera gouverné pour l'intérêt exclusif des peuples, du peuple sénégalais. Au vu des crises que le Sénégal a traversées ces dernières années, le parti Paris le Sénégal invite les citoyens à choisir un candidat rassembleur et ouvert au dialogue pour un Sénégal de paix. Merci à vous, Djibril Khoulé, notre correspondant à Touba. Et puis le collectif des concessionnaires et du nettoiement a levé hier dimanche au mot d'ordre de grève illimitée entamé jeudi dernier pour réclamer à l'État le paiement d'arriérés de factures à la suite de multiples concertations avec la Direction générale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets Sonaged. Le collectif des concessionnaires du nettoiement a décidé de mettre fin à ce mot à ce à son mot d'ordre de grève et de reprendre immédiatement le euh, service de collecte des déchets interrompu euh, depuis jeudi dernier, indique un communiqué. Et puis à l'école élémentaire Ngadigal, euh, euh, les élèves travaillaient dans des conditions très difficiles à raison de euh, l'état de délabrement avancé des salles de classe. Pour soulager cette situation, la mairie de Signa, en collaboration avec l'entreprise Lotary Club, a débloqué une enveloppe de millions de francs pour construire de nouvelles salles de classe. De plus, elle prévoit même de construire un mur de clôture et de rénover les toilettes afin de permettre du euh, personnel enseignant de travailler dans des euh, conditions plus acceptables. C'est un reportage de Mandia et Babacar Diallo. À l'école élémentaire Gandigal Sud, les élèves travaillent dans des conditions très difficiles à cause de l'état de délabrement des salles de classe. Euh, nous avons débuté dans des conditions très difficiles. On avait un problème de salle de classe, problème de table-banc. C'était pas facile, mais vraiment, euh, vraiment des enfants dynamiques, des enfants aussi qui des études. Euh, ce pas <laughs> permis à tout enfant de pouvoir travailler dans ces conditions-là. L'éducation, un des piliers du club Rotary, c'est pourquoi 30 millions ont été décaissés pour la construction des salles de classe. Euh, l'éducation fait partie des axes euh, qui sont très importants niveau du Rotary et c'est une place parce que sans éducation, sans connaissance, sans savoir, nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. Voir la réalisation euh, par rapport à ce qui s'est passé ou ce qu'on avait avant. Et aujourd'hui, la réalité que nous avons ici, les classes qui répondent aux normes euh, de l'enseignement, euh, notre joie vraiment est très grande. Venez assister à l'inauguration. La maire de Sindia, Tcherno Diagne, a magnifié l'acte. Une occasion aussi pour lui de lancer un appel au corps professoral de produire de bons résultats. Si nous décarcassons vraiment pour avoir les meilleures écoles et zéro abri provisoire, c'est pour avoir de bons résultats. Bon, ça, c'est pour le corps enseignant qui nous avons des collègues et des directeurs d'école qui nous travaillons ensemble, on a une très bonne collaboration. Mais nous, au final, c'est d'avoir des résultats au niveau des écoles. Le club Rotary, en collaboration avec la mairie de Sidia, compte construire d'autres salles de classe et une mur de clôture afin de permettre aux élèves de travailler dans des conditions plus abordables. Marcel Bouffoumar Ndiaye Babacar Thiali Pion Sport pour euh, finir combat Modou et Ama c'était expéditif et très confus mais la VAR a finalement tranché en faveur de Modou Lô le roc des Parcelles Assainies conservant ainsi euh, son titre des rois des arènes sénégalaises en terrassant le lutteur de Pikine c'était tout pour le journal la deuxième partie de C'est clair juste après ceci Jamagan ay ay yëpp maa gën moo jot ba toftal ay simili gërëm leen sant itam ci ànd bi ak programme yu Leral TV Leral FM tey altine yamook juróom benn fan ci weerub euh, novembre ñu ànd ak yéen euh, ci seen émission matinale c'est clair mu nekk numéro bu njëkk bu ayu bés bi Birahim ñu ngi lay ziar yàlla yàlla nangu ziar yi ñuy euh, mm-hmm. topp di leen ñaanal ba sut jàmm ak ubbite ak ay bésub jàmm ci ñëpp. ayca Lamine Senghor noo def. ça va maa ngi sant yàlla bu baax soxna Thialalum di la ziar di euh, ziar Birahim Touré euh, boole ñi ñuy topp jamono jile góor wala jigéen fu waay mën a nekk salaamaaleykum. ci njàppandalug waa régie Lamine Senghor ñu dox yéen kaay ak li ñu xëyee. jamono jile nag ñu ngi wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, géej gi ak faat ya muy faat doomu aadama yi ci biir réew bu Sénégal rawatina ndaw ñi jamono jile nag tamit. accident yi mu ngay wéy di indi ay njombe ci biir réew mi ndaxte nag foofee ca sangal kam accident moo fay daal di xew benn wotoog Dacia particulier moom moo fay daal di mbëkk benn camion tax nag lu toll ni kon juróom benn doomu aadama daal di cay ñàkk seen i bakkan ca saa si loolu nag moo ngi xew eh, ci eh, gaawu bile maanaam ci ndorteeloo weekend bi eh, wane nak ne Birahim Touré encore une fois lu jëm ci wàllum immigration waaye tamit lu jëm ci wàllum transport terrestre maanaam dem bi ak dëkk bi accident yi ak li nga xamante moom mooy doomu aadama yi daal di faatu mu ngay way di gën a bëri waaw euh, transport bi wax nañ ci lu bëri mais immigration bi tamit dinañ ne wax nañ ci lu bëri waaye les faits mooy wane ni fi ñu toll nii situation bi compliqué na j'ai vu un je pense un communiqué du ministère des affaires étrangères bi wax ci lu toll ak 700 ci ay sénégalais yu ñu secourir euh, au large du de la Mauritanie ñu wax la ci euh, yeneen i nit ñoo xamee ni faatu nañu dañ leen mujj suul sur place. Mm-hmm. ne la am na lu tollook juróom fukk yu nekkoon ci biir gaal gi. Mais la situation aujourd'hui, elle est, je dirais, dramatique. Mm -hmm. Dramatique au point que man je ne peux pas comprendre ba léegi tooguñu ne nañ ci waxtaanee nañ laf lépp waxtaanee lii. Mm-hmm. dégguma ko il y a pas encore du côté des autorités officiellement benn kàddu goo xam ne yëkkati nañ ko jëm ci wàlluk immigration. Mm-hmm. xam nañ lay jox jot euh, jot nañu sauver nangami nit. jàpp nañu nangami nit. Euh, am na gaal gu nekk fii ña ngeen kii ñaata nit lañ fi rapatrier ñu doon jaar beneen yoon bi di Nicaragua bi sax ñaata nit lañ fi rapatrier fan yi ñu weesu on parle de presque cent cinquante personnes xaw lu ko ëpp sax yoo xam ni war nañ leen a rapatrier ça veut dire que ce n'est pas la solution loolu la ñu war a wax nit ñi dem bi du solution lan mooy solution mooy que état mën a lijjanti ba ñi nekk ci biir réew mi. am xemmemte fu dem ñu mën a xool lu ñu leen di téyee à travers lu leen mën a liñ naan boo boo leen boo fa teggee dara teg fa dara mooy teggi dara bi mooy bu leen dem la nga fay teg mooy am leen xëya ngi nii am mm. leen situation ngi nii am leen euh, sur le plan économique am na jéego yoo xamee ñu ngi koy def ñun état mm. pour que euh, dund la ngeen doon dund peut-être mu metti ba jaral leen ngeen bëgg dugg ci gaal lu néew li ngeen yoree ci koppar ngeen dël ko jox ko benn passeur te wóoru leen sax di ngeen àgg am leen ñu ngi leen di wutal yeneen solution mm-hmm. et l'une des solution majeures et qu'il faut nécessairement ñu mën ko appliquer te état bi xam nañ ko économice yi xam nañ ko mm-hmm. mooy ñu mën a privilégier ñuy woy le secteur privé national privé privilégier leen mooy lan ñu mën a fexe ba am autant d'entreprises mm-hmm. de structures PME PMI yoo xamee ni dafay jël ay nit di leen liggéeyloo di leen fay weer bu dee xoolaat salaire yi ba nga xamee ni tey ñi nga xamee ni ñoom ñooy yëngu di ay capitaine d'industrie wala ay chef d'entreprise bu ñuy ubbi seen entreprise walla lañuy liggéey at bu jot wala weer bu jot ñu ne la ñun de am nañu capacité wu recruter nang nangami nit mais ba ci secteur public bi am na ay structures yoo xamee ni ñu ngi fi Sonatel mu ngi fi SDE mu ngi fi mm. Senelec mu ngi fi Sénélec mu ngi am ay ay ay partenaires yoo xamee ni euh, yeneen i euh, structure lay doon ay mm-hmm. petites et moyennes entreprises yoo xamee ni dañuy liggéey liggéeyu Sénélec dañuy ànd ak liggéey euh, Sénélec di liggéey ci ay contrats. Mm-hmm. Sonatel di def la même chose c'est pas pour la publicité mais am na loo xamee ni am na si wàll woowu poste am na loo xamee ni war nañ ko mën a defaraatee poste ba nga xamee ni nit ñi def ay yóbbante ay ay ay colis di ko dugal ci ay bus. muy jóge dakaar di dem Kolda wala jóge dakaar di dem Saint-Louis poste am na liggéey bu mu war a liggéey ci wàll woowu tey lu bari poste war na ko mën a liggéey mais faw mu am euh, nuñ koy suuxatee yëkkatiwaat ko ba nga xamee ni dina mën a jël ay sénégalais di ñëw di liggéey ci moom. Mm-hmm. structure privée yi fi nekk wax naa ko waxati ko il faut que ñu gën leen a dooleel te kan moo leen di dooleel état moo di dooleel. Mm-hmm. ci ñaari mbir la di dooleel mooy lépp lu jëm ci wàllug ay taxes yooyu yi nga xamee ni war naa mën a ñàkk. wala ñu wàññi ko ñu wàññil leen ko ba la ñu waroon dem di fay état ci wàllu ay taxes mais ñu jël ko féetale ko ci ay nit ñoo xam dañ leen di recruter ñu leen di mën a fay fin du beneen wàll bi mooy képp koo xamee ni da nga yore sa structure mais ñu fexe ba may la bu amee ay marché waxuma cinquante pour cent euh, je vois quelqu'un comme euh, Ablaye Sylla avec son son club Euh, de de de d' entrepreneur yoo xamee ni leen la ñu wax mooy cinquante pour cent de la préférence nationale hmm. mais au moins dañu àgg cinquante pour cent de la hmm. préférence nationale boobu au moins bu buñ ci àggee muy lan marché public yu bari yi am mais même bu dee un marché sur un mois boo xam ne dañ la naan da ngay tabax euh, benn école mais mu am ay sénégalais yoo xam ne dañ ciy liggéey mën cee fayeeku loo xamee ni peut-être mën na tax ba ñu ne léegi liggéey am na parce que quelqu'un le disait je pense que euh, on a invité euh, une dame il y a longtemps qui en parlait emploi mu ngi fi possibilité d'emploi mu ngi fi mais dafa mel ni dañ koy nëbb nit ñi dafa mel ni dañ leen buggul la pousse ci yooyu la emploi parce que ñiy dem lan lañ dem defi ñii ngi dawal ay bus wala ay taxi xamul lu fi ñàkk waaye du bus ak taxi fii waaye est-ce que am nañ possibilité jot ci bus yooyu ak est-ce que am nañu possibilité la ñuy fayeeku fële ñu mën ko fayeeku fii hmm. ñenn ñi ci ay tool lañ leen di liggéeyloo hmm. fii ay tool a ngi fi mais est-ce que tey bàyyiwuñu tool yi ndax am na benn xëccoo bu am ñii ne léegi maa moom nangami hectare ñii ne non non hectares yi maa ko moom wala ñu ne la engrais ba leen ñu jox doyul wala ñu ne la euh, lii di matériel agricole ba ñu soxla pour mën a fexe ba bu ñu doon am fenn cent mille francs ñu mën faa am un million matériel boobu amuñu ko loolu yëpp ay politique la yoo xamee ni ci wàllu développement la jëm mais politique c'est pas une question de mm. man maa boo leen ma dénkee réew ma def nangam il s'agit pas de dénk la réew mi nga def nangam mhm. il s'agit de le faire et surtout de fair des propositions yoo xam ne yu logique mhm. lay doon yoo xamee ni da ngay ñëw appliquer ko mais pour cette question de l'immigration je reviens sur un point mhm. mooy dégguguma ba tey ñu ne nangami nit faatu y a treize corps sans vie ñu ne les cinquante passagers dans le dans le dans le dans la pirogue sont portés disparus avant ñoom ñaata nit ñoom ñoo ci faatu du ñu jeex dégguma benn zone ñu ne drapeau en benn deuil national mhm. nañ toog waxtaanee ko mais c'est ça qui est le drame aujourd'hui leneen lu ñu fi wax nii nii yëpp ay wax la mais lii moom mooy drame parce que ce sont des jeunes qui sont en train de partir et boo xoolee léegi de plus en plus on nous dit une maman dont son nourrisson de trois jours née dans la pirogue mhm. c'est-à-dire ay jigéen a ngi fay dem de plus en plus gis nañ fi benn pirogue boo xamee ni dana ne sur les quatre-vingts occupants plus de cinquante pour cent sont des femmes donc mhm. plus de quarante yi ci quatre-vingt yi ay jigéen lañu léegi ay xale yu ndaw ñoom ñoo dem ci biir ay gaal mais ça c'est une situation boo xamee ni se taire c'est même criminel se taire et ne rien dire ou ne rien faire à mon avis c'est c'est c'est à la limite mm. on se pose une question mooy mais lan moo tax ba nit ñi duñ ci wax association yi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey mm-hmm. surtout yi ciy wax ñu ngi ciy wax bu ñu politiser lii parce que on voit des gens parce que ñu ngi wut peut-être candidat wala yu mel noonu naan non nañ def nangam ci immigration bi te bu ñu faloo tamit même chose lay doon mais nañu wut solution ci ñi fi nekk actuellement mooy le régime en place qu'il en fasse une priorité et waxuma une des priorités mais la super pour stopper cette cette saignée et surtout mm. euh, arrêter ce drame qui n'en finit pas beneen mbir boo xamante ne jamono ji ne nag ñu ngi koy daal di waxtaanee nit ki eh, tey ci suba la ñu gis rek yéenekaay yu bari moom tamit daal dinañ cee ñëw mu jëm nag ci wàllu bi ak njàngale bi enquête yéenekaay gis ngeen ko eh, ci xëtu njëkk yéenekaayam wax ci lee moom moo jëm ci lekkool bi nga xamante ne mu ngi diggante dund ak dee noonu lañ ko daal di eh, bërale ci seen xëtu njëkk yéenekaay ndaxte Birahim Touré SCOUSEMS ak SAEMS la ñu bëgg mooy daal di xam le ne du ba ëllëg ci talaata bi daañu dem ca gerew gerew boo xamante ne journée morte enseignants yi loolee moo nekk seen dogal waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy corps maanaam autorités yi ak ministère de l'enseignement euh, mi nga xam ne moom moo yor génne wa bataaxal ni ki démb euh, mu ngi dem bay sax menacé comme ni nga ko waxee sànq ñi nga xam ñoom ñooy corps euh, enseignants yi. est-ce que la meilleure solution. pour trouver est-ce que pour wut solution ci problème da ngay xuppaate man je ne je ne pense pas dialogue moo war a am ci lépp. Mm-hmm. te lii bu ñu ko dialogué waxtaanee ko ci seen biir. Euh, fa muy jëm baaxul parce que quand on te dit que les enseignants se radicalisent ñoom duñ dellu ginnaaw mais buñ dellu ginnaaw nguur gi wala la tutelle ne moom it du dellu ginnaaw. Mm-hmm. di menacer du ñoom ñaar ñoo ci sonn xam ñu ci sonn. les mm-hmm. parce que élèves yi déjà seen ëllëg wóorul. Mm-hmm. enseignement de manière générale éducation de manière générale au Sénégal seen ren moo xaw a jafe ndax ñu ngi jëm ci ay élections. présidentielle te lépp ñëpp xam nañu tension yi am ci élection avant élection après élection campagne électorale éleve yi ñoom ñoo ciy gën a sonn parce que duñu jàng bu grève amee ci yeneen i secteur ñu dem nañ dem génn ji élèves yi nekk ci lii euh, lycée nangam nañ gém génn ji ñu nekk université ñu gis situation yi nga xam ne moom moo fay am ñaar ñi war a toog waxtaan ñu ne la waxtaan nañu ba am nu ñu xaatim ci ay déggoo il faut que État du Sénégal également sur ce plan chaque fois qu'il y a des des accords qui son signés mais dañ ko appliquer wala ñuy wax dëgg bi mooy lan ñu euh, lii ngeen bëgg yéen enseignants yi wala lii ngeen bëgg yenn syndicat wu beneen syndicat bu mu mën a doon mm-hmm. mënul nekk wala nañ ko mën a defee mooy peut-être ci diiru ñaari at wala ñetti at bu boobaa mm-hmm. ñëpp dañ xam ne lii mooy li ñu signé mais application bi wala applicabilité bi du pour tout de suite et maintenant ici et maintenant mais dina am diir boo xam ne dina ko jël ba pare état tamit na diggee lu mu mën waxoon nañ fii ci wàllu revalorisation des salaires lu jëm ci secteur nangam secteur mm-hmm. nangam mm-hmm. mais am ñoo xam ne gisuñu seen bopp on a invité ici ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, la fonction publique locale ñi nga xam ne ñoom ñooy syndicat yi yëngu ci wàllu que mairie yeeg yu ni mel lay wax mooy ñun gisuñu suñu bopp ci revalorisation revalorisation wu salaire yi ñu doxal ñeneen yi c'est tout simplement parce que état mm-hmm. digg na loo xamee ni moom ay yoon xam ne ni peut-être mun cee àgg mm-hmm. mais juste pour peut-être baisser la tension wala bañ coow am wala ne leen dellu si leen toog leen waxtaan bàyyi leen coow li mm-hmm. bàyyi leen grève yi non dañ leen yokkal loolu la ñu war a bàyyi nañ wax dëgg nit mooy lan lii mënuñu ko wàññi wala lii mënuñu ko yokk wala lii moom mooy situation bi nga xamee ni du ñun la concerné directement mais c'est peut-être des chocs exogènes yoo xamee ni moom moo ñuy euh, forcé ba mhm. ñu war a yokk njëgu nangam wala moo ñuy forcé ba li ngeen bëgg yéen mënuñu ko def mhm. mais tey quand on nous dit que ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe les enseignants ne ni mhm. dafa am ay accords yu ñu signé woon te doxaluñu ko à côté on nous dit paradoxalement que il y a un déficit d'enseignants ci euh, yenn zones yi ci réewum Sénégal mais après ñenn yi dañ naan mais pourquoi est-ce que may dem di jàng pour nekk ëllëg enseignant parce que métier la boo xamee ni ay jafe-jafe dong lañ ciy dund. Euh, mhm. discuter dialoguer je pense que c'est la meilleure solution. Mhm. mais euh, xupaate bi rek euh, wane ni mhm. man maa maa mën. je ne pense pas que. loolu moom mooy avancé loo école bu Sénégal. bu bu fekkee Ibrahima maa la ko laaj sànq ci ci nasaxaar ñu bari jàpp nañ que ni gouvernement bi dafa négligé li nga xam moo jëm ci wàllum njàng meek njàngale ce que mën nañoo wax loolu bu fekkee waxtaan am na seen biir bañ jëloon ay ay ay togal naam déggoowuñu waaw non mhm. négligé bi moom. Mhm. Euh, man je me souviens ba ñuy gën a. Mhm. nekk ay xale ngay seetaan. assemblée nationale euh, seen i débat lañ leen doon wax quarante pour cent du budget nationa à l'éducation ba ñu demee ba ci biir je me suis rendu compte que lañ doon wax 40 pour cent yi en fait c'est plus côté ay salaire fonctionnaire yi état yi bu ñu la nee y a de fonctionnaires dana naa ni nangam yi. ay jàngalekat la ñu. parce que ñoom ñoo ci ëpp waaye ay fonctionnaires u état la ñu. ñu ne le budget ba ñu jox ci éducation nationale la ca ëpp mu ngi jëm ci ay fay salaire leneen li mu ngi jëm ci ay tabax ay école ay lycée ak yu ni mel waaye lu néew lañ ciy def ci yeneen i structure wala leneen loo xamante daf leen. daf leen di mhm. soxal ci lu jëm ci seen i yokku salaire ak yooyu. mais euh, état du Sénégal. Mhm. négligé bi c' est pas seulement les enseignants négligé nañu secteur yeneen secteur bëkk Demba Ndiaye ba léegi. Mhm. daanaka rombal ko yu bëri mbalit yaa ngi mhm. fees dell parce que lan am na déggoo boo xamee ne waroon na am diggante nguur gi. Euh, concessionnaire wu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy yore wàllu nettoiement ak structure bi nga xam ne moom moo leen jiite ba ay fan yoo xamee ni kenn mënul tonni mbalit ci buntu këram tout simplement parce que amoon na jafe tout mais loolu mm-hmm. lan la mais c' est l' état qui est responsable parce que ñoom ñoo ñu war a jàppale jàppale askan wi ci yenn ci ay domaines donc euh, il faudrait que l' état mm-hmm. euh, sénégalais le régime régime mm-hmm. bu fi mën a nekk la ñuy wax na doon lu ñu mën lañu mën nañu ko def ci anam ñu ñu ko war a defee bu ñu ko defee peut-être que je ne dirais pas qu'il y aura pas de grève Mm-hmm. mais il y aura moins de de contestation euh, mm-hmm. ci ci wàllu yooyu. Mm-hmm. en tout cas jamono jooju Birahim Touré état bi tamit mu ngay daal di nekk victime ndaxte ñu ngi koy tiire de partout presque. Euh, ganaaw nag ba nga xamante ne njiitu réew bu Sénégal Macky Sall jënd na ab daal di euh, suuxat li nga xam ñoom ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon kon di diriger li nga moom mooy commission électorale nationale autonome maanaam Sénat. jamono jile nag kon jàppale ne yéenekaay bi la di Sud bind nag ci euh, xëttu njëkku yéen kaayam kon euh, moom Sud Quotidien euh, li nga xam moom mooy kon li xew ca Sénat ak jafe-jafe yi nga xamante ñu ngi koy dund la polémique enfle ndaxte moom mooy jamono jile li nga xamante daanaka gaaw bile ba tey jile ñu ngi koy daal di waxtaanee gis ngeen ko ak Doudou Ndoye wala sax ki nga xamante moom mooy kon Ndiaga Sylla expert électoral bind na waaye tamit ca wet ba Ismaïla Madior Fall ki fi nekkoon jawrin bi yor wàllum justice maanaam yoon daal dina koy tontu ca wet ba Ndiaga Sylla tamit tontuwaat ko Bougane Gueye dañuy wax na naka noonu tamit eh, ki nga xamante moom mooy kon Val joojo Ndiaye ku nekk mu ngay mm-hmm. daal di indi xam-xamam jëm ci wàllu moomee Birahim Touré benn yéeni kay moom moo daal di samp ab laaj digité l'essentiel eh, jamono ji nga xamante ne wàccee nañu du Ndir ndax loolu dañoo ñëwaat tënku ci maanaam reversé ci li nga xam moom mooy la norme eh, ci li nga xam moom mooy jëm ci boobu la mbir di mm-hmm. sena euh, polémique la boo xamee ni euh, ñenn observateurs yi dañ jàpp ni normalement warul mm-hmm. woon a am ni nañ ko tegoon ci yoon. ñu ne la lan mooy teg ci yoon bi mooy mënoo à mois de quatre mois de la présidentielle ñu ne la dañuy soppi les règles du jeu électoral ñenn leen la ne amul foofu règle bu ñu soppi waaye dañoo soppi ña waroon a superviser di waa Sénat président ba ba ci yeneen fukk ak benn membre yi ci bokk ci biir Sénat ñu ne la d'accord opposition bëggoon na ko société civile yàgg na ko kaas. ñu nekk ci boppu Sénat ak ñi nekk ci biir Sénat ñu ne la depuis ay at ngi nii ba ñu waroon a bàyyi ñu indi changement ñu ne la teg su Sénat yi dañ la ne kuñ ci fal juróom benn at la benn moment dinañ taw ba ne la léegi mën nañoo soppi. ñi mhm. bokk ci biir Sénat euh, chaque trois ans waaye ne la mënoo soppeendoo ñëpp duus mhm. yëpp ci benn yoon. mun mhm. nga soppi le tiers mooy ci douze yi. nga jël ci ñeent soppi leen teg fa keneen teg fa ñeneen. trois ans après nga tegaat yeneen ñeent mais mënoo soppeendoo yëpp ci benn coup de baguette magique wala benn signature ci ci ay décret ñu ne la mhm. polémique bi yamul foofu je vois des journaux qui reviennent sur une interrogation qui va susciter encore polémique te boo xamee ne indi woon na déjà polémique mhm. mooy lan le point actuel qui nous dit à qui profite le report de l'élection mhm. il faut waxu report Yor Yor qui nous dit mhm. le pouvoir veut-il réellement aller à l'élection présidentielle parce que am na fooy toll source a ñu wax ci Macky mi violer le protocole additionnel de la CEDEAO jëlee ko ci docteur Mbaye Cissé nga xamee ni euh, chercheur le spécialiste en en de droit comparé dellu si ci mbirum lu ñu soppee Sénat mu am coow lu am diggante Ismaël Madior Fall mhm. ak Ndiaga Euh, Val jooju yaa ngi koy wax léegi nii ñeneen ñi tontu nañu sax Ismaïla Madior Fall on a même vu un juriste sénégalais bu dëkk ca Canada muy expliquer Ismaïla Madior Fall ne ko ñun en tant que citoyen électeur am nañ sañ-sañu xool. Mhm. kan nar suñu superviser élection ci lu jëm ci euh, présidentielle bi ñu dëgg man ñu ne la léegi à qui profite ou profiterait une possibilité de tension préélectorale. Mhm. ndax lan tey. DGE ña ngi koy ŋaññi ci joxal Sonko bul jox Sonko ñu ne déjà ministre de l'intérieur ba fa nekkoon dañ ko doon ŋaññi bi ñëw bees moom ba avant ñu koy installé sax coow nee na kuur. dem nañu sax ba wax mhm. boo xamante ne nee nañu 62 pour cent d'accord ñu ci euh, ki nga moom ne moom mooy Ousmane di Kaba Sidiki Kaba. Mhm. mu indiwaat beneen coow ñu ne la léegi gannaaw ñaar ñooñu di DGE di mhm. ministère de l'intérieur bi nga xam ne moom moo ko bokk. ñoom ñëpp war a war a yore wàllu élection ñu ne Sénat ba nekkoon sax. buy superviser te ñu jàppoon ni peut-être am na benn coppite ci démarche bu Sénat bu ñu gis fan yi ñu weesu ba muy sàkku ci DG di ko sax enjoindre ne ko léegi euh, tribunal d'instance bu Ziguinchor lii la décidé laataa ñuy wax leneen jé jébbaleel fiche su parrainage yi dugalaatal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci. li nga xam ni moom mooy euh, fichier électoral jébbal ko ay fiche parrainage mm-hmm. ñu ne Sénat bi ñu gis ni peut-être bu bees la wala mm-hmm. soppeeku na yow nga jël loolu yëpp mu doon ay source de problème nañ ko mën a waxee mm-hmm. war a dem nag ci élection présidentielle ñamuñu si ñu nee ba Sénat bu weesu boobu donte am na ñu ko bëggoon nguur gi nee na euh, changé bi ñu changé opposition ko bëggoon société civile yàgg na ko sàkku mais ñaar nañu ko waaw léegi yow timing bi nga jël moom moo ñu jaaxal parce que mhm. da ko soppi quelques jours après li nga xam ne moom mooy bind bi ci jóge ci Sénat mhm. ne ni nañu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi nañu euh, bàyyi yi ñuy def par rapport ak euh, fichier yi ñu ko refusé la yu mandataire am ak yooyu yemuñu si ñu ne la kenn ci ñi membre Sénat yi ñu teg yu bees mais c'est un homme politique mhm. jege Macky Sall amoon sax mouvement de soutien buy jàppale Macky Sall ci 2019 euh, Moudao Balla Fall je pense c'est c'est c'est mm-hmm. c'est ça son ñu ne la de delà kooku dem déjà problème ñu ne duñ ci am parce que am na koo xamee ni génne nañu ko donc mm-hmm. Cheikh Awa Balla Fall la tudd euh, ki ma ñu ne la am na kuñ ci génne ci Sénat bi woon ci douze yi fi nekkoon koo xamee ni mandaam jeexul mm-hmm. te ñu ne la ci code électoral ci ni ñu tëggee Sénat kenn amul sañ-sañu ndakkal mandat wu nit. Mhm. lu mooy ñu ne la wàllu car car boobu ñuy wax au delà de trois ans wala ki nga ni ne euh, feu Mamadou Mbodj dañ ko remplacé woon parce que jeexalugul woon ci leen jël Doudou Ndir. Mhm. bu bu mottalee mandat wu ki génn àdduna mën na am sañ-sañu ñu joxaat ko beneen mandat bu bees muy doon premier deuxième mandat mu mhm. daanaka ni ñu ko mën a waxee noonu de six ans. mais coow loolu yëpp yëpp yëpp taxaw suñu kanam te mu jëm ci ay élection te ñu nag ci conseil constitutionnel mhm. nga xam ni beneen coow la nar indi aussi ñii ne d'accord ñu ci parrainage bi ñii ne dañoo génn ndax mbirum ay benn votant mhm. xam ay ay euh, doublon ak yeneen ak yeneen mu nar a doonaat beneen coow finalement donc ñun système électoral bi yëpp mhm. wala ñiy yëngu ci wàllu suñuy système électoral processus électoral bi yëpp du ci kenn koo xamee ni am na déggoo bu am de manière même pas unanime mhm. mais majoritaire ci lu jëm ci opposition wala société civile comment aller vers des élections libres transparentes équitables et sans tension ak coow yi nga xam ni moom moo fi am il faut nécessairement ñu ne stop nañ taxaw nañ xool li ñu war a xool nañ defar ba au moins même bu ñu amul euh, nu ñu koy waxee ci une unanimité mais ñu am benn large consensus ci acteurs yooyu war a mhm. dugg ci biir processus bi ndax Sénat la ñu xawoon a yaakaar ne ni arbitre lay doon mais bu dee arbitre bi euh, kenn la ci joueur yi. Mm-hmm. day compliqué. Mm-hmm. et donc tout ça euh, ça ça ça ça renvoie à ñaari journaux yu ci wax mooy qui veut profiter. Mm-hmm. d'une situation boo xam ne dañu ci dàq élection. mais je répète que dàq élection c'est pas ça la solution te warul sax am on a toujours tenu des élections surtout présidentielles à date. quelle que soit la situation waruñu dàq ay élection au niveau du du Sénégal surtout lu jëm ci wàllu élection présidentielle mais nag quelle que soit la situation jeu électoral bi tamit dafa am mm. ay instances internationaux euh, internationales plutôt wala euh, euh, régionales mm-hmm. yu ñu tere ñu soppi ko au-delà ou avant six mois avant mm. benn benn élection et apparemment beneen coow mooy nar a am parce que bu ñu ko yóbbee aw mën nañ leen ne ni non Sénat bi ngeen soppi. Mm-hmm. war leen ko soppi à mm-hmm. même pas quatre mois de. de la présidentielle de de 2024. Mm-hmm. Euh, très rapidement rek Birahim peut-être nga ñëwaat ci li ma doon laaj sànq ci ci nasaraan muy li ñu nemmeeku ci diggante DGA ak Sénat mën nañu jàpp ne tey moo waral coppite bi ñu ànd jamono ji ci Sénat. ah mais moom la ñu bari sopp ñu bari jàpp. bu dul bu dul loolu sax du looloo ko waral. mais comme je disais. ah hasard la bu xaw a bu xaw a eh, ëlëm xelu ñenn ñi. Mm-hmm. timing bi ñenn ñi mën nañ la ak ah, mënoon nañ ko def avant. Mm-hmm. defuñu ko ñu xaar ba coow loolu am ñu soppi leen mm-hmm. est-ce que sanction la. walla du sanction ñenn ñi sanction lañ ko jàppee. mais li wóor mooy dañu waroon soppi les membres de la Sénat parce que beneen cas figure maa ngi koy wax sànq ci wolof ci ci tubaab. bu doon dañ fi bàyyi Doudou Ndir. fukk ak benn ñi mu àndal muy douze personnes yi bokk sena te amoon na coow ñii waratuñu nekk sena Doudou Ndir waratu jiite Sénat Sénat donte am na benn lu bees lu ci am ci mbirum Ousmane Sonko. Hmm. bu ñu leen bàyyi woon ne leen léegi continuer leen. Hmm. ñu continuer avant ñuy àgg élection di nga gis ñu néew ne ni Sénat bii nii warula superviser élection yi parce que euh, sur le plan légal. Hmm. bokkutuñu waratuñu woon bokk ndax ña ca nekk. seen mandat jeex na depuis mhm. renouvelé nañ ko ba ba ñu jeexalee du tey ñu ne la kon boobu le Sénat capable wala aptul pour contrôler ñun suñu élection l'essentiel li mu wax mhm. sanction ou retour à l'égalité à la légalité retour à la légalité ngi parce que mhm. sinon doon nañu indi ne la Sénégal en fait ñoo bëgg ay yenn polémique à juste raison ou pas mais la a naroon indi également mooy nii ñu dem bay waaj a jub élection nga gis benn wala ñaari nit société civile wala yenn ci ay opposition wala yenn ci même parti au pouvoir ne leen mais Sénat bi ñoon d'accord ñu parce que ñi ci nekk ils sont dans la légal parce que bañ leen waree dax wala ba ñu fa waree jóge yàgg na donc ñoom mur ñoo superviser élection euh, bu politiciens yi daal finalement mm-hmm. ak processus électoral beeg yooyu mm-hmm. dañoo mujj moom nit ñi daal <laughs> bu ñu ngi ñëw ci arène bi waaye nag laataa ñuy dem ci arène dugg ci arène Sénat bi ak Odia Omar ci arène Sénat la ñu dugal nee na daal ñaari mbër ñoo fi ne hmm? ah, ak Ismaïla Madior ñoom ñoo bëre ku nekk nag jàpp na ngemb waaye nag li ma jaaxal mooy <laughs> Ismaïla Madior dindiwul verre yi de benn kii mooy arbitré nee na mooy arbitré hmm. mooy caméraman hmm. moo yor VAR moo yor lépp Macky ko wax de ba pare Sénat moom moo war a moom mooy superviser fait. waaw mais sauf que Sénat boobu Awa moom mu doon wax sànq. avec le parti pris ndax dafa dafa féete woon de. Hmm. te lan lañ la wax ci composition moom Sénat. Hmm. ñoom ñëpp dañu war a doon ñoo xam ne équidistant ba pare am na beneen point boo xam ne hmm. certains l'ont soulevé. te ce qui est aussi important. dans le choix des membres de la Sénat. président du toog nii rek toog ci bureau euh, jékki-jékki rek bind kafem hmm. jël kiyam bind euh, hmm. décret euh, non signé ko dafa am lu ñu war a consulter hmm. dañ journaliste sax war nañ leen consulter jaare ko CORED wala SYNPICS wala leneen pour ne leen jox diw de leen bëgg jël ci membre média pour mu bokk ci Sénat parce que dañu naan ci mën nga jël ci secteur yu bari ngay jël mhm. ci biir Sénégal mais doo ko jëlee ni mu la neexee nga toog nii rek réfléchir na ni calat mhm. euh, di neex na ma bàyyi ma def ko président alamin mhm. tamit waa neex na ma bàyyi ma def ko vice président non da ngay dem ci corps yooyu nga xamee ni ca la ñu bokk laaj magistrat yi ñu ne la waa ñun su suñu biir diw de jàpp nañu ni il est à équidistance de kii du dugg ci diir du dugg ci nangam euh, choisir diw pour mu bokk ci Sénat wala pour mu léegi ñooñu ci boo xësee def loolu yëpp ba pare. Mhm. yow nag bu la neexee ne ni léegi naa jël diw def ko président la jël diw def ko vice président. yéen organiser wu leen seen biir. parce que mhm. sena dafa am autonomie boppam. Mhm. Sénat mën na président ne ni nangam Sénat ne ko d' accord ma ci lu jëm ci processus électoral la preuve ministère de administration la direction générale des élections administration la bopp Sénat ne ko ni li nga def tegoo ko fenn dindi ko. parce que am nañu seen autonomie bopp am nañu seen. seen seen euh, ñoo war moom seen bopp ci wàllu mm-hmm. mais ku war moom boppam ñu ne la kenn ci ñoom ci euh, ku doon jàppale Macky Sall wala ku ko doon gunge ça va encore poser problème donc polémique yi moom mm-hmm. on va pas en par rapport à mm-hmm. cette euh, commission électorale nationale et de manière par rapport ak processus électoral bi yëpp sax dinañ ci ñëw incha allah ci commentaire bi waaye nag jàppale ne kon jamono jëlee ci wàllum arène bi sànq maa ngi koy wax arène nationale bu ñu fa duggee nag Modou Lo ni ki dem moom moo daal di wanewaat xarañte fam comme ni ñu koy woowee Modou Lo xarañ lo ay démb daal wane na xarañte fam ci kanamu Ama Baldé daan ko nag ci euh, diiru 52 secondes matul sax benn minute euh, gars nee nañ coups ya daal bu ñu ko limee mat na 24 coups. Hmm. metti oh, woon na xam mën a xew daal luñ ci mën a jàpp. dañ jàpp ne Modou daal mooy ruwa. xam nga mën nga far nga wane ko ñoom Birahim ak Cheikh ñoom ñëpp dañu far ñu wane ko mais far ba pare di nëbbu moom moo gën moo far di nëbbu. ah c'est pas ma. man faraluma daal man xam naa ne parcelle laay yeewoo. waaye ah, bu wax ne léegi nag xam nañ lépp Lamine Senghor dañ laa bàyyi ko mais aussi encouragé. Ama Baldé euh, il a été d'une ténacité exceptionnelle. Ah. ak euh, li mu montré aussi du début. bi mu duggee ci arène bi keroog bi muy bi muy daanu malheureusement. mais aussi euh, félicité ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk promoteurs yi ak euh, investissement bi mu ci def mais aussi liggéey bi mais encore une fois Birahim je pense que war nañu aussi jaajëfal liggéey bi nga xamante ne CNG mu ngi koy def ci lu jëm ci maanaam réglementation bi ñu def ci ci ci arène bi. commencé ko par exemple ci organisation bi ñuy def ci entrée supporters yi ku nekk fa muy duggee commencé ko encore une fois ci li nga xam moom moo jëm ci entrée lutteurs yi réglementation timing bi nga xamante ne def nañ ko ci ku nekk temps bi mu am ci euh, li nga xam moom mooy géew bi pour génn àll sa morom donc tout ça di ay mbir yoo xamante ne c'est important ñu féliciter ko encourager ko li nga xam moom moom liggéey bi nga xam moom la CNG di def ci boobu la mbir mais aussi encore une fois euh, euh, l'avènement de la VAR ci li nga xamante moom moo jëm ci ci ci ci arène nationale bi c'est la deuxième fois ou la troisième fois bi ñu ko installé ak léegi ñu koy ñu koy daal di utiliser même si même si encore une fois euh, démb euh, xam nañ ne nag ah, fa yàlla amaa moom teel naa daal waaye nag VAR bi daal ñëw na daal leerala lépp gën a leeral ñëpp bu ko defee ah, benn xel ñaar du ci am c'est le sport de chez mm-hmm. évolution parce que fut un temps boo amoon un million ci làmb mm-hmm. euh, bari na mm-hmm. maanaam ñenn star yi ñoo ko doon am ci yooyu jamono Euh, ñu ne la sax bu ñu demee bay fayee ko ay cinquante millions jëm cent millions. Euh, ñu rendre hommage ko ci mel ni Mohamed Ndao Tyson bokk na ci ñi nga xam ni yóbbu nañu làmb foofu gannaaw gi on a vu les cachets yi nga xam ne am na ci wàlluk làmb. Mm-hmm. mais moi en tant que amateur du ma féliciter CNG. CNG je pense que dañu am liggéey bu ñu war a def. Mm-hmm. ñoom ñoo ko war a liggéey duma leen ci féliciter nit ki mu ngi liggéey liggéeyam. Mm-hmm. da ngay encourager. mais man du ma ko féliciter. parce que am na peut-être ay failles am na lu ñu war a parfaire VAR bi ñu ci dugal c'est bien am na ñu war a parfaire parce que au sein par exemple l'image qu'on a montré tout à l'heure mm bi dugg ci biir enceinte bi ba pare traversé daanaka saaku yëpp ba àgg ñoom fa ñu nekkoon. Mhm. ñu bàyyi ko ba mu mën a jot ci mbër yi mais bu doon dafa yore paaka jam ko nit bu doon dafa yore bëjjën pour jam ko euh, l'un des lutteurs. heure bi leneen la ñuy wax dootu ñu waxati waxu kii moo gañe wala kii moo daanu waaye diw dee na wala diw euh, nangam la ñuy wax mm-hmm. tout simplement parce que am na faay bu ci am mm-hmm. te faay bi euh, man euh, ci observation boo ma def ca la ma xool en tant que amateur ici mooy la ma gis mooy ni am na ñu def lu ñu warul def même ci côté sécurité mm-hmm. la preuve si par exemple président la république day romb fii ci VDN bi nii policiers yi nekk ci tali bi wala gendarme yi nekk ci tali bi ñoom duñu xool cortège bi am na ñu ko yore war a xool mooy ñi nekk ci kaw passerelle yeeg yooyu mais ñeneen ñi xam nu ñuy def dañuy wan ginnaaw porte euh, cortège bi pour xool oto yi ñëw walla nit ñi mën a jóge ci mhm. euh, ci ñaari trottoir yi ñaari côté yi mhm. mais pas de xool cortège bi ça veut dire que ñi doon ñu nekkoon ci wër euh, li nga xam ne moom mooy euh, arène bi wala euh, saaku yi mm-hmm. mais am na si ñoo xam ne dañ doon seetaan làmb ji seetaan ñu woon mm-hmm. seetaan xool ñu woon sécurité bi làmb ji lañ doon seetaan bon on peut dire que ay erreur la c'est normal parce que ay mm-hmm. sénégalais ay doomu aadama lañ peut-être que ci ñoom am na ñoo xam dañoo faral Modou Lo ñiy faral Ama Baldé mais am na moment fu combat di toll kii xam nga la mu traversé yëpp traversé na plusieurs mètres bien ba accès ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mbëri ça bon. La ce sont des jeunes ou la faute à la sécurité la police en tant que telle. police CNG laay wax police ak CNG. CNG surtout parce que moom mooy. ren loolu mais bi muy yëkkatee Modou Lo fekk naa maa daanu la. non mais warul sax ak. polémique bi polémique bi en fait. parce que waru sax àgg ci moom bon ça c' un constat ça veut dire que il y a eu une faille nañ ko rectifier moo tax du ma ne damay féliciter mm-hmm. CNG mais dañ leen di encourager par rapport ak liggéey bi nga xam jot nañ ko ci def promoteur bi également mais moi je voudrais surtout féliciter mm-hmm. te loolu c' est le mot que j'utilise mm-hmm. ñi force de défense et de sécurité muy gendarmerie di police vraiment gisuma fenn ci journaux yi wala ci réseau sociaux yi ñu ne agressé nañu diw wala nangam mhm. nangam contrairement à ce qui s'est passé ci lamb jële weesu mhm. xëy na on a vu des vidéos de personnes yu ñuy agressé yu ñuy sàcc seen mhm. moto yu ñuy jam ak yeneen ak yeneen ça veut dire tout simplement que comme nañ fi doon wax je l'ai dit ici qu'il fallait une présence dissuasive de la police de la gendarmerie des forces de défense et de sécurité la présence elle était là a vu en plus ñu lëkkaloo muy gendarmerie di police sécuriser pas seulement les axes mais ba ci biir koñ yi ak mhm. des des hommes en tenue comme ñoo xamante tamit ils étaient en civil dem damay génn juste après le combat je vois ay nit ñoo xam ne euh, dañ leen euh, arrêté yore ay scooter ay moto di vérifier lu ñu yore seen biir ndax yore wu ñu ay jaas yi wala lu mën a gaañ nit ak yu mel noonu bëgg xool fan lañ jëm juste pour sécuriser les populations parce que li war a am mooy nit dem seetaani lamb en tant que amateur j'aurais bien voulu man sol bo rafet comme on dit mhm. euh, taal sama oto dem ba buntu stade ba en me disant que je suis en sécurité mhm. seetaan sama combat euh, jubilé euh, ñi war a jooy jooy ñi bëgg a jubilé jubilé rentrant chez moi en me disant mhm. c'était une fête mais boo demee ba nit ñi sañatuñu dem làmb moo waral tey ñuy gën a dugal ay pay per view nga xamee ni yow euh, promoteur ba la nga mënul la nga mënul am ci ay ticket yooyu jaay ci mhm. biir stade bi dinga ko mën a am ci ay pourcentage booy jël mhm. ci boo koy jaay ci ay connexion pour ni ñu mën a connecté wu te sur ce plan aussi nañ jàppale euh, sénégalais yi nekk un peu partout euh, mhm. ñi nga xam ne amuñu njëgu connexion boobu parce que quand même c'était treize mille francs hier Euh, pour nga mën a seetaan lamb ji avec euh, seen pay per view yooyu mais am na ñu amul treize mille francs yooyu te pourtant c'est des sénégalais am droit wu uh-huh. seetaan lamb mais nañu jox euh, tamit télé yi suñuy chance ci mel ni leeral kuy tëggati combat ah nañu may ay possibilité ñu mën ko yaatal nit ñi mën ko seetaan waaye jël ñaari télé rek yemale mbirum làmb ñu yemale ko ci ñaari télé yooyu c'est bien ce que ces téléphones. mais nag dañ mhm. euh, ko yaatal nag et ça vraiment je naan je presse pour ma chapelle. Euh, comme fii laa nekk tey jiite ko dañuy jàppale nag ñoom promoteur yi. Luc Nicolaï ak euh, ñeneen ñi daal en tout cas. en tout cas Modou Modou ñu bari ñoo xam ne réeruñu. Mhm. waaw mais n'empêche ñu lay féliciter. Hmm. du wax nag ñeneen ñi kan ñu mer ah, bari ah mais c'est c'est un sport. C'est normal, c'est un sport, il faut quand même. Uh -huh. Il y a vainqueur c'est tout à uh-huh. fait normal. Mais ce qui est important aussi, uh tous les deux sont du Sénégal et Sénégal. Uh-huh. ñoom ñaar ñëpp de la banlieue. Sénégal la. ñi banlieue bi ñi merul ak ñi kontaan mais parcelle am na supporteru Modou d'accord mais am na ay supporteru Ama ci biir parcelle. c'est des Sénégalais. Pikine boobu am na ay supporteurs u yu dul jeex am ay mhm. supporteurs u Ama euh, nañu dans la sportivité euh, sportivité euh, yenn j'ai entendu des gens euh, dans les réseaux sociaux mhm. def ay glissement yu dangereux mhm. naan diw du sénégalais diw nangam laag euh, ça il faut qu'on évite ça c'est un sport euh, qu'on se limite à à ce sport là maama yi nag ñu nekkoon ci réseaux sociaux yi moom ku nekk bu wéetee xam boppam ak la mu waxoon. wala ñoo xam ne waxuñu ama waxuñu mu doo ci diggante bi yàlla baax na. nañ seet si yàlla nag vraiment. nañ seet si yàlla. <laughs> en tout cas Moodu. ñetteelu yow bàyyi Amar Lamine Senghor merci beaucoup en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu nekkoon waa baax na xam nañ ko fii lañ toog chaque jour ñu joxe palmarès ak Modou Lo ak Ama Baldé loolu lépp nañ ciy jaaraat mais yàlla baax na eh, baax na <laughs> en tout cas merci beaucoup avec la complicité de la régie léegi-léegi ñu jàll ci xibaar yi ak li ci gën a fas ay ay ay jamagan bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci euh, xibaar yi euh, CEDEAO mi nga xam ne tey jii ci altine di yam ak euh, juróom-benni fan ci weexub novembre dañu fas yéene joxe seenub atte jëm ci li nga xam ne moom la ay avocat maanaam ñi la yool Ousmane Sonko doon sàkku jëm ci tas bi ñu tas parti ba woon di parti Pastef waaye itam lu jëm ci Ousmane Sonko génne bi ñu ko génne ci liste électorale yi mu mel ni Ibrahima gannaaw Sénat tey jii CEDEAO la ñuy xaar mu joxe atteem fekk sa décision moom jël. Mhm. Euh, ndax dañu ko appliqué. Mhm. Euh, parce que malheureusement ce qu'on constate mooy quand ça arrange. Mhm. dañuy appliqué quand ça n'arrange pa dañu la naan. CEDEAO euh, dañu am juridiction waaye ñun dañu am suñu juridiction. il faut savoir lan lañ ci bëgg ci wàllu woowu mais li wóor mooy ni ñii di ay avocats Sonko ils toujours. ci li ñu woowee seen seen bataille. sur le plan juridique. judiciaire pour euh, mën seen seen client mhm. déjà mbirum radiation am la ñuy wax ci wàllu liste électorale waaye tamit ci mhm. wàllu parti politique bi nga xam ne moom mooy Pastef bi mu jiite euh, ci wàllu woowu CEDEAO mhm. am na ci kàddu gu ñuy xaar ci loolu bon du ñu anticiper sur ce qui va se passer waaye quelle que soit la décision qui sera prise que parti yëpp nañ ko accepter appliquer ko bu dee état du Sénégal CEDEAO da ko ne da nga tooñ que état du Sénégal nangu. rectifier ci wàll woowu. bu dee dañu ne CEDEAO dafa ne ni euh, yéen ñi ànd ak Ousmane Sonko. Hmm. ay la yoon d'accord ma ci li ngeen wax wala euh, dama leen di débouté naka ku nekk nangu. Hmm. parce que ñu ñoo dem ba ci ñoom. te CEDEAO ñu war ko gën a. Hmm. fulaal déjà il faudrait que ñoom seen biir ñu fulaal seen bopp. parce que euh, loolu beneen débat CEDEAO ba ñu doon njort. ak ba ñu bëgg peut-être am na lu ci lu ci yànq tuuti ci. boobu la CEDEAO mais au moins sur le plan euh, judiciaire euh, jël nañ fi décision yoo xamee ni euh, état du Sénégal appliqué wu ko mm-hmm. ci lu jëm ci Karim Wade mm-hmm. jëloon na fay décision état du Sénégal wu ko euh, jël nañ ko ci yeneen ak yeneen yoo xamee ni mm-hmm. état du Sénégal appliqué wu ko parrainage bi en 2019 hmm? parrainage bi aussi en 2019 pas ba après parrainage bi ñu ngi dugalaat système parrainage bi CEDEAO d'accord ci woon ci ni ñu ko defee sur le lu fond comme dans la forme est-ce que dafa tax état du Sénégal dellu ginnaaw wala régime bi dellu ginnaaw euh, c'est ça l'interrogation donc quel que soit ce qui euh, lu ñuy wax ci euh, décision bi tey coow li mm-hmm. mooy est-ce que dinañ ko nangu mm-hmm. dinañ ko appliquer wala duñ ko appliquer mm-hmm. ac Lamine Senghor ñuy xaar tey décision CEDEAO gannaaw Sénat ah je pense que c'est tout à fait normal avocat Ousmane Sonko ñu ngi ci seen droit maintenant nag comme ni ko Birame waxee est-ce que décision bu CEDEAO di joxe tey mhm. dina tax xëy na euh, ñu ñu ñu ñu appliquer ko am déet ci réewu Sénégal on Euh, ce qui va se passer mais c' est tout à fait normal donc parce que boo ko seetloo ayu bés ci ginnaaw la ko waroon a amal mais CEDEAO dàq ko pour des raisons euh, bien définies parce que selon information yi ñu joxe woon mooy que ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci cour de justice CEDEAO ñoom ñëpp dañoo waroon a am dossier bi en quelque sorte ci li nga xamante moom mooy jëm ci ku nekk langage wala langue bi nga xam ne moom nga ko déggee espagnol anglais te loolu yëpp léegi nag loolu taxoon euh, ci information yi ñu jot a joxe je précise encore une fois ñu dàq euh, maanaam jour procès bi ba tey mhm. on verra ce qui va se passer aujourd'hui à Abidjan euh, en tout cas lépp lu ci mën a xew je pense que l'idéal aurait été que CEDEAO décision bu mu mën a jël ñu ak appliqué ko mais est-ce que ce sera le cas mm-hmm. on verra d'ici peut-être ce soir d'accord ñu ngi wax sànq ci wàllum njàng meeg njàngale mi xam ngeen ni sa ak CUSEMS ñu ngi wax ni daañu fa seeni banque seeni loxo ni ki ëllëg mu yem ak talaata juróom-ñaari fan ci weeru weerub euh, novembre gannaaw nag euh, loolu gouvernement bu Sénégal rawatina di euh, nga xam ne rek ñoo daal yor lépp lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale meeg di ko jiite génnee ab communiqué ak leen dànkaafu ci loolu xamle ni gannaaw bu ñu amalee grève boobee ba noppi ñoom itamit daal ñu fas yéene rek euh, dellusiwaat ci euh, dogal yi nga xam ni moom la ñu jëloon ak ñoom ñuy wax le sax ni euh, nag ak koppar goo xam ne jot nañ koo dugal ci accord yooyu mu toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk diwaanu Louga la ñuy wutali wax ci bésub ñaax waaye itam waxtaan wa ñu fa amal loole nag daal di am ci njàppandaloog ay projet yu ñuy wax voix ak leadership des femmes la ko wund xam ne ñoo di chef de village yi faree foofu waaye itam kuréel gi nga kuréel yi ëmb jigéen ñi ci boobile diwaan di diwaanu Louga ak itam élus locaux yi ngir rek xamal leen njeexintal yi nga xam rek moom moo nekk ci terre maye ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi mu di mariage précoce waaye itam lu jëm ci ndaw ñi nga xam ne dañuy rek yeex wala sax du ñu am li nga xam ne moo di kayitu juddu ca boobile diwaan di diwaanu Louga lu toll ci juróom-ñaari commune yu bokk ci Daaru Musi nag ñi nga xam jàppale ak tout tànk ya foofee ca këyitu juddu Modou Ndoye la ñuy teewlu moom moo nekk maire bu commune bu Ndoyeen ci micro Matar Sakho ak Ndayaram Diallo. waxtaan waxtaan bu yeete ñu bokkoon ko ànd ak benn projet yu ñuy wax VLS mooy voix leadership des femmes ak ARS ñuy doon sensibiliser donc ñu yee euh, ay nit xam ne ay kilifa lañ ci mu nekk ay chef de village mu nekk ñu yore ay groupement des femmes mu nekk ay élus locaux. mu nekk donc ay ASC e ak ñëpp ñu leen di yee ci ci ci code de la famille ci article yoo xam ne article 111 la ak 196 yoo xam ne xañ na ñu bari xamuñu ko ci yeete boobu euh, dañoo constaté na que bari na ay xale yoo xam ne soit dañ leen teel a maye euh, duñu xaar ba am 18 ans ñu may leen am ñoo xam ne dañuy def sixième ñu may leen mu yàq seenu njàng loolu suñuy yee parents yi vraiment ak leaders yi ñu mën a porter loolu pour que vraiment ñu bàyyi xale yi ñu dem seen njàng ba ak à terme wala soit que bu ñu leen bàyyi ba am am 18 ans voilà beneen bi aussi ñu xool na bari na ñoo xam ne aussi jafe-jafe ay judd euh, dañuy judd mais duñ leen déclaré loolu aussi ñu leen ci ñaax pour ko ku judd rek ñu dem ci euh, ci mairie ba déclaré parce que déclaration gratuite doo ci fay dara mais bu fekkee déclaré ko mu dem ba nekk mag war a kii day nekk jugement te jugement dafa métti wax naa ko fii ne boo xoolee man bari na jugement yoo xam ne ñu fi nekk nii parce que léegi au niveau du tribunal dañuy exiger euh, nga indi sa photocopie carte d'identité papa ak sa yaay nga ak ñaari témoin mais aussi nga nga fay xaalis te loolu ñu si bari vraiment dafa métti ñoom te bu fekkee danga nga fii rek dafa dafa dafa dafa da nga fay gratuitement moo tax ñu wax sànq na ah am na benn initiative boo xam ne gis nañ ay communes yu ko jël ñun aussi daan jéem koo jël fii suñu suñu suñu différentes euh, communes yi mooy que euh, cahier euh, d'état civil ñu jéem a xool chef de village bu nekk ñu mën la jox benn cahier boo xam ne ni ku juddati sa dëkk da ngay dem directement chef de village nga déclaré ko parce que loolu mooy gën a yomb doo ci doo sonn te doo ci dépenser lu jaajëfal leen bu baax a baax Matar Sakho ak Ndayaram Diallo mu nekkoon Modou Ndoye di maire bu commune bu euh, Ndoyeen Birahim lu ñuy faral di gis la muy euh, xale ji xale ndaw yi bu ñu juddoo dañuy yeexa am li nga xam ne moo di euh, kayitu juddu waaye itam njeexintal li nga xam ne moom moo nekk ci mariage précoce. waaw mhm. Sama. dafa am plusieurs raisons. Mhm. mais tamit plusieurs solutions bokk na ci raisons yi mhm. on a. invité fan yi weesu. ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci collectivité territoriale yi yenn seen liggéey Euh, du jàppandi wala condition yi ko mën a defee du jàppandi waaye solution bi si ëpp importance tey mooy fexe ba dañu doon wax ni dañuy euh, digitaliser numériser administration bi ci lépp ci lu jëm ci wàllu woowu ci wàllu ay pièces d'état civil mu bañ a yam Dakar wala grand centre régional mais dañu dem un peu partout parce que bu booba ça permettra euh, donte am na jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko ci mm-hmm. mais foo mën a nekk ci Sénégal euh, ci village bi gën a reculer mhm. mais di nga am possibilité euh, ci kaw système informatique mhm. boo xam ne dañ ko fay installé nga mën a am euh, rapidement nanga soxla ci mhm. wàlluk ay kayitu juddu ak yu parce que lu ko may ay jafe-jafe lay indi ci ñi nga xam ni ñoom ñuy xale yi ci wàllu jàngi école wala ci leneen lu mën a doon ndax di gis koo xam dina dem ba am Euh, war a dem defi entrée en sixième maanaam am ay onze ans douze ans mosul mhm. am pièce d'état civil mhm. euh, ñu euh, peut-être benn examen tax ba ñu war koo ko soññ mhm. pour moo mën ko am te aussi y une responsabilité des parents mooy bu xale yi juddoo ñu fexe peut-être au bout de buñu comme Sénégal dañoo bëgg ay tudd ak ay ngénte au moins bu ñu tuddee wala ngénte ba noppi mais ñu jublu ci wàllu koy état civil am na yenn réew yoo xamee ni avant ñuy tudd def nañ la def ci wàllu état civil ba mën mm. nañu euh, def ko euh, euh, ci kayit yeeg yooyu. Mm. am na ci yenn kër yoo xamee ni ci structure de santé bi xale bi juddoo. Mm. daanaka ca lañuy tàmbali liggéey bu jëm ci wàllu état civil ba nga ne boo demee ci fi nga waree wutee pièce état civil bi. di ay acte de naissance extrait de naissance day gën a yomb donc loolu rek moom mooy peut-être les solutions que les gens ci wàllu woowu ku ci nekk la nga ci war a def nga def ko ci Senghor jafe-jafe yu ñuy faral di gis bu bu ndaw yu juddoo ba noppi jëm ci wàllum kayitu juddoo waaw je pense que euh, comme ni ko Birahim waxee le projet nekkal moom lañ ko duppee woon mm. projet boo xamante ne dañuy numériser li nga xam moom moo jëm ci wàllum loolee euh, mu nekk loo xamante ne lu am solo la woon ñu annoncé ko même si Eh, il faut le dire am na ay jéego yoo xamante ni ñu ngi koy def ci boobu la mbir li ñuy eh, laaj kay mooy ñu gën koo bëral eh, ba puisque on est au vingt et unième siècle on a la possibilité de le faire ñu gën koo bëral ba fii ci biir réew bu Sénégal fu waay mën a nekk nga mën a daal di li nga xamante ne moom mooy sa PS sa pièce d'état civil wala lépp li nga xamante ne soxla nga ko jëm ci euh, li ni mel nga mun koo am ci fépp foo nekk ci biir réew bu Sénégal parce que je pense que euh, jot na pour ñu dépasser li nga xamante moom lañu ancienne méthode bi mooy euh, par exemple man su ma soxlaa pied détaché bi il man jël passe auto dem ba Diofior dans la dans Fatick justement pour mën am li nga xam moom mooy sama d'état civil donc tout ce temps là c'est en fait je pense que c'est du gâchis jot na pour exactement ñu mën a def li mel mais euh, je pense qu'encore une fois comme la la responsabilité parentale aussi il faut impérativement ñu ñu ñu bàyyi ci xel ci li nga xamante moom par rapport au mariage précoce cela moom c'est un point boo xamante ne tey jii mën nañu wax ne Sénégal am na ci évolution mhm. euh, ni nga xamante ne daanoon nañ ko gis mu bëree noonu ak tey jii gis nañu évolution bi ñu ci am même si encore une fois na ay yenn gox yoo xamante ne ba tey on voit euh, ce phénomène des mariages précoces euh, ci li nga xam moom mooy jëm ci loolu aussi nekk na loo xamante ne war nañ ko taxaw ngir saytu ko ba li ni mel ñu mën koo xeex au de li nga xam ne moom mooy les conséquences néfastes yi nga xamante ne mu ngi koy am mhm. psychologiquement moom mooy ku jigéen ki ñuy teel a marié mais aussi mhm. encore une fois ci li nga xamante moom mooy kon maanaam jëm jëm ci wàllum environnement am jëm ci wàllum avenir am loolu lu am mm-hmm. solo la pour ñu gën koo xeex ba mun koo jeexal ci biir bu Sénégal zéro mariage précoce c'est bien possible incha allah merci à toi Lamine Senghor mu nekkoon li nga xam moom moo gënoon a fës ci euh, xibaar yi ñu doon ko digtal Birahim ñu bàyyi nga tàggatoo ba demain incha allah waaw demain mm-hmm. incha allah on se retrouve le matin pour euh, euh, c'est clair matin ci ngoon si on aura ci seen émission moi candidat mm-hmm. l'ancien ministre conseiller spécial du président de la République Abdoulaye Aziz Diop incha allah moom lañ nar a dalal suba ci moi candidat à suivre à partir de 21h30 sur Leral TV FM et Leral Planète. d'accord acca léegi léegi ñu dugal Fatou Kiné ci mode astuce et beauté pour jeexal. jàmm neuf neuf heures moom mooy soogaa jot gërëm leen sant leen itam ci ànd bi ak programme yu Leral TV ak Leral FM bi suba ba tey ñu ngi ànd ak yéen ñu ne itam euh, la ñuy def euh, wéy ba deux heures fas yéene toftalay simili ak Fatou Kiné fekk si nañu ci plateau bi ñu ngi lay ziar Fatou. maa ngi bu baax Diallo. Mhm. di ziar ça va mhm. sant alhamdulilah waaw di ziar mhm. Lamine Senghor Birahim. dellu ziar bu baax. di ziar yi auditeurs yi ak internautes yi. yaa koo faraloon combat bi démb. kan man heureusement nag akama noppalu faaluma kenn. sinon heure ñii di mer ñii di jooy fii xam nga. am nañu reerul démb faaluma kenn. am nañu reerul am nañu nelawul. yàlla baax na Aïcha xarañ ñoo ñu koy félicité bu baax a baax. waaye moom faraluma ko woon moom waaw. ah waaw man amaa laa faraloon waaw non man yow. faraluma woon Modou Lo. mi ngi noonu yàlla baax na ak jamono ñoo xam nag faral dañ doon làqatu. mais ah, yàlla baax ñu ngi si plateau après le fës daal waaw. après le fës waaw merci beaucoup. acca <laughs> Fatou Kiné ñu bàyyi tey lu ñu euh, ma indi leen loo xamante ne. Mhm. actuellement tendance la. Mhm. Euh, sûrement bu ngeen ko gisee di ngeen ko xam. Mhm. parce que xam nga des fois dañuy gis dara mu nekk tendance nit ñi di ko utiliser. que ce soit bijou wala mu nekk benn accessoire. wala benn tissu nit ñi di ko sol da koy gis muy rafet mais du ñu xam lan la dara. Uh-huh. muy uh, li nga xam mooy bijou bawle. donc bijou bawle. bawle waaw noonu la tudd. soo uh-huh. déjà boo xoolee ci image yi di nga ko xàmmee di nga gis ni nit ñi ñu ngi koy takk mais peut-être tur bi la ñu dul xam donc bijou bawle origine bi nekk. Euh, Côte d'Ivoire waaw voilà comme ah. pétaaw la mel. Euh, mi ngi origine bi mi ngi jógee fële ca Côte d'Ivoire. voilà bii bu ngeen ko gisee di ngeen ko xàmmee motif bi lañ gën a xàmmee. Mm, gis nga. Mm-hmm. day nekk ensemble day nekk boucle d'oreille euh, nekk bague am na am na cœur boo xam ne mm-hmm. dañ koy def chaîne am na tamit euh, bracelet. Mm-hmm. Euh, comme ni ma ko waxee bijou bawle origine bi mi ngi nekk fële ca Côte d'Ivoire donc bawlé benn ethnie ethnie la boo xam ne Côte d'Ivoire la nekk donc lii bijou yi cosaan la. si ñoom parce que soo xoolee bu njëkk temps wu colon yi. bawle bii nii soo ko jëlee. lii nii en fait buñ koy jaay kii bi dong la ñuy jaay euh, bijou lu doore lii dong nañuy jaay ñoom ñu ngi koy tuddee poids bawle pourquoi pois parce que avant temps colon yi bu njëkk ba moom nañu daan peser poudre d'or comme soo yoree poudre d'or pour ndoxu or nga bëgg ko peser amuñu woon yi nga xam moom la ñuy teg ci balance pour di ko peser mhm. léegi bijou bii nii ñu tuddee que poids bawle moom nañu doon peser poudre d'or bi avant bu njëkk ba donc ñoom mu nekk loo xamante ne bijou boo xamante ne origine la seen dëkk bëri na signification ba ci seen mariage boo gisee jeune marié yi dañ koy takk hormis le fait que mu nekk bijou boo xam da nga koy jël takk ko mu rafet dañ koy def euh, voilà càlla bi xàmmee nga ko sûrement bi xàmmee naa ko voilà noonu <laughs> euh, léegi ñu ngi koy def yeneen dangay gis ay chapeau chapeau yoo xamante ne soo gisee ivoirien seen mariage yi góor ñi moom nañuy takk chapeau yoo xamante ne dañuy jël bijou bawle bi def ko au milieu wala ñu def ko ci pourtour bi wërale ko si chapeau bi mhm. euh, aussi tamit ñu ngi ciy def ay yëre comme nga gis euh, mooy robe yi nga xam ne dañ koy defee ak tissu yi jóge Côte d'Ivoire tissu bi mi ngi mhm. tudd koko dunda donc tissu boobu sax après dinañ ci ñëw koko dunda waaw comme cuub la mel donc sûrement yéen a ngi koy gis ñu ngi ciy def ay robe di ci def ay combinaison su ngeen gisoon tissu bi di ngeen ko xàmmee mais peut-être tour bi ak origine bi na nga dul xam ku ko dundaa la tissu bi tudd dañ koy def ay robe ivoirienne yi jël li nga xam ne mooy bijou bawle bi def ko bouton wala jël ko aligné ko ci robe bi mu wàcc gisoo chapeau yi nii lay mel donc seen marié yi góor yi moom la ñuy sol donc bijou la Euh, pour rafetal la mais aussi dafa am signification bu bëri bëri parce que soo xoolee temps wu maam yi ñoom seen ay origine moom nañu daan peser li nga xam ne mooy mm-hmm. pour d'or bi genre monnaie d'échange lañ ko defoon en fait mm-hmm. donc mu bokk ci seen culture nekk loo xamante ne origine bi foofu la jógee Côte d'Ivoire ñu koy mm-hmm. woowee aussi poids bawle bawle nekk ethnie boo xam ne Côte d'Ivoire am na ñu leen di woowee bawle am ñu leen di woowee akan donc benn ethnie la boo xam ne mhm. Côte d'Ivoire la nekk bijou bi nekk seen ay seen origine rek mosuñoo xam <laughs> mi ngi noonu moo tax des dafay baax li nga xam ne tendance la nit ñi jël ko mhm. bijou bi dañ ko jël léegi ñi ñi dañ koy takk lu bëri waaw dafay mhm. baax des fois li nga xam dañ koy takk voilà ñu xam origine bi xam fan la jógee xam ne ñun côté esthétique moo ñu ci dugal. Mhm. mais fi mu jógee origine bi ñoom dafa am signification ci fi nga xamante ne mooy seen muy Côte d'Ivoire mais yii est-ce que bari na. yii par contre Côte d'Ivoire nga koy gis. yii gisuma ko Sénégal am moom temps yi moom jël nañ ko waaw nañ ko mhm. mais euh, bu dee côté bracelet yi. Mhm. parce que dafa bëri façon Sénégal boo xoolee motif bi ak motif bi ma la woon sànq. bi nga xam ne ensemble bàgg bi la boobu moo bëri. mais bii foog nga dem ba Côte d'Ivoire pour am ko fa. parce que yii moom yi nga xam dafa am tête de kii beeg pettaaw beek yooyu mm-hmm. yooyu d'habitude Côte d'Ivoire nga koy fekk d'ailleurs boo demee fi nga xam ne fa nañ koy jaayee mm-hmm. ñoom boo demee kii bi nañ lay jaay poids bawle bi kese kese kese ñoom nañuy mm-hmm. jaay léegi nag après soo soo ko jëndee euh, nga wax leen lan nga bëgg ñu defal la ko soit nga ne leen raadu ku laa si bëgg wala nga ne leen bàgg laa si bëgg wala comme da ngay ñëw tey nga jënd nga passé sa commande ñun la ñëwal le lendemain wala ñëwal deux jours après soo ñëwee fekk yow waxoon nga lan nga bëgg ñu defal la ko bijou bi nga bëgg bu dee euh, bague ñu monteel la si anneau mhm. bu dee boucle d'oreille ñu monteel la si li nga xam mooy dugg ci nopp bi mhm. bu dee collier tam ñu booleel la ko ak ay perles defal la ko collier mais bu ñu koy jaay à la base mhm. bijou bi kese nañuy jaay voilà. ka nice na trop ah, en plus comme li nga wax ci ci li muy signifié nga xam ne ñoom moom esthétique moo ñu ci dugal. gis nañ woon mais tey voilà xam nañ xam nañ. ñoom seen dëkk daal waa signification bi. lu lu la daal si ñoom. voilà en tout cas merci beaucoup euh, Fatou Kiné ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax amoo ci lenn loo ci war a wax. non non non bi mu bi waxee <laughs> la sànq ne Baoulé ah. race euh, la Côte d'Ivoire et benn ethnie la. moom laa doon xool ah, spécifiquement ci ci ci internet bi mais bien sûr bien xam nga xam nga Côte d'Ivoire dafa dafa bëri ay races ethniques. Mm-hmm. Euh, c' est tout à fait comme le Sénégal. Mm-hmm. mais je pense que Côte d'Ivoire sama moo ëpp ay races ethniques que Sénégal donc tey mm-hmm. ñu euh, l'histoire euh, les Baoulous sont installés en Côte d'Ivoire vers les environs de du du treizième siècle donc loolu di wane ancienneté bi nga xamante ne am nañu ko. le nom Baoulé vient du sacrifice par la reine Pokou. et quand j'ai vu Pokou sama xel dafa demande ci la Euh, l'un des plus grands joueurs du monde. Mhm. ci wala du continent africain ci nga xam ne moo jëm ci wàllu football. Poku mhm. donc euh, tey jii 2023 ñu koy sargal déjà le ah. ballon même du du du de la compétition de la vingt de la Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ne Côte d'Ivoire lañ koy amalee. Mhm. ballon bi Poku on lui a donné le nom de Poku. donc euh, dafay ñëwaat encore une fois ci histoire bi donc c'est important ñu koy ñu <laughs> daal di. très important. xam naa ne moom mooy wax mais non déjà existence bi sax existence su poids bawle bi. Uh-huh. Euh, boo xoolee si recherche yi tu verras que ne existence am c'est plus de cinquante ans en fait. Mm-hmm. ça fait plus de cinquante ans que. Euh, bijou bii nii poids bawle bii nii existé donc mu nekk loo xam ne yàgg na ñun peut-être ñoo ciy doog a jot bi mu defee nii Fatou Kiné xam nga dafa am fit pour man day dugg ci affaire ah, esthétique di wax <laughs> voilà te am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi naan dañuy dugal la xam xam na ñoom xam nañ seen bopp ñu ngi naan ñu ngi koy wax loo ci affaire esthétique ak yooyu la moom xam la moom xam na li may wax dem na dem naa ci sax boo xoolaale ah. ci seen ci seen langage ah. wala seen làkku bopp. waaw dañu am seen làkku bopp ni ñuy waxee je ci ci seen langage bi bawle. Uh-huh. nee na nee na ñu ngi koy waxee. miklowo loolu dong moo ko ci m i mm-hmm. espace. Uh-huh. k l o espace w o miklowo. micro lañ koy waxee xaw ma en tout cas dañ noonu lañ koy waxee bu ñu demee bu ma demee Côte d'Ivoire incha allah leen ko laajal. Ah, boo demee nga laaj leen ko jeex na leen ci ci ci affaire ci jeex na boo demee lépp mën ñun demuñu mais boo ñëwee samay jigéen ñeen mën naa leen indi ba pare matière la boo xamante ne du changer en fait c'est inoxydable léegi bijoutier yi sax ñu ngi koy defar en or aussi macha allah dañuy jël imprimé bi imprimé euh, poids bawle bi. def ko en or waa nga xam dafay yàgg. am na or léegi am na plaqué or. mais origine bi matière bi fi mu jógee c' est mm-hmm. c' est in c' est en fait du changer. d' accord merci beaucoup euh, Fatou Kiné ñu ngay lay jaajëfal ba demain incha allah. <laughs> incha allah. ba bal di ba yee fajar samedi waay. ay waay fajar laay yeewul waaw wax nga dëgg de man rek a maay tax mu teel a yeewu samedi. fajar waa laay laay bii nag seetaan naa ba jeexal. gis nga kii xoola bindal kii bindal ah? na la ko bindal ah c'est ça race mixte de petits taurins originaire d'Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire à cornes courtes et à robe sur pied noir voilà merci beaucoup euh, ku nekkati Régis Mohamed voilà merci beaucoup Mohamed Thiam merci Mohamed yaa ma gënal Ismaïla Sagna digg aca merci à toi Lamine Senghor à demain à toi inchallah inchallah ah. merci à vous à la régie à demain inchallah excellente journée à tous et bonne suite des programmes Ay, ay, ay, ay. ay ay ay